jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag dellusiwaat tey ci kanamu écran bi ci plateau bi nga xam ne moo di 90 minutes ensemble di seen émission buy am alal boobu jot ci waxtu wi àllarba boobu jot nag ci waxtu wi ñu leen di indil ay thèmes xam ngeen bi weesu nag jotoon na leen indil thème waxtaan ci politique di waxtaan boo xam ne ñu bëree bëri bëri seetaan nañ ko ñu koy rafet lu bu baax euh, alors boobu jot na ñuy xool ana lan nga xam ne moo gën a mingoog jamono wala bokk moo xew ci jamono ñu koy waxtaanee te yaakaar naa ne bu ñu ko fi indee waxtaanee ko dana mel ni ay mun a indi ay saafara euh, ñu indi ko nag euh, teg ko fii ci émission bi woo ay borom xam-xam ñu fas yéene ànd ak ñoom waxtaanee li ni mel xam ngeen nag lu gën a fës ci semaine bi euh, gannaaw ba ñu jàppee ay waa ñoo lànk ñoo bañ. jàpp nañ ne tamit li ci gën a fës moo di grève bi nga xam ne secteur éducation maanaam njàng bi ak njàngale bi mu ngi koy commencé di jànkonteel ndax tey ñii di waa G7. Euh, ak waa G20 sax ñoom jot nañoo bokk ci xeex bi euh, amal nañu woon ab débrayage foo dem tey ci Sénégal di mouvement boo xam ne euh, ñëpp topp nañ ko bu baax maanaam enseignants yi ñi nga xam ne ñoom ñooy rek wàllum jàngale bi suba nag ñu fas yéene def grève totale gannaaw suba ñu def doxum ñaxtu ci Sénégal ci mbedd yi ba moo tax tey nag ñu fas yéene def taxaw laaj taxaw seetlu ah, jéem a xam ana lan mooy problème bi ndax enseignants yi nee nañ nguur gi yore na leen xaalis gu takkoo takku nee nañ sax toll na ci téeméeri milliards maanaam cent milliards aussi foog ñu xoolaat ana lan moo tax euh, seen i revendication di am ay rëq-rëq bi maanaam nguur gi taxawul pour satisfaire ko mu jëm ci li nga xam ne moo di système de rémunération bi euh, yëkkatiwaat nañ fi tam yeneen laaj wala yeneen kàddu wala yeneen rëq-rëq yoo xam ne jàpp nañ ko ci question des lenteurs administratives di maanaam yéex yéex yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci euh, wàllum administration bi ba moo tax nag tey ñu woo ay borom xam-xam duñ leen présenté ko ci njëkk moom di Abdoulaye Ndoye moom mooy secrétaire général CUSEMS moom nag ci G7 bokk Abdoulaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf Diaby maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi euh, di wax ni euh, émission bi dafa am solo parce que man depuis trois jours maa ngi woon Saint-Louis di def tournée tey suba bi ma paree sama assemblée générale la roulé pour mën a ñëw ci émission bi euh, parce que c'est normal ñu ngi ñuy xaar. te sénégalais yi dañu bëgg ñu wax leen lu leer. effectivement di nuyu également ñu ma bokkal plateau bi mooy euh, le directeur exécutif de la COSIDEP monsieur Cheikh Mbow hmm. euh, ñun ñi CUSEMS nous sommes membres du conseil d'administration de la COSIDEP parce que structure boo xam ne dafay rassembler plusieurs acteurs rafet rafetlu également liggéey bu COSIDEP di def dans le secteur de l'éducation du nuyu le directeur de la formation et de la communication monsieur Diagne ci teewaayam euh, di nuyu tamit Babacar Dione hmm. comme nuñ koy waxee rek euh, en Afrique, les entreprises échouent parce qu'il y a un déficit communicationnel. il faut discuter avec les gens et de la contradiction naît le perfectionnement maanaam am nañu yaakaar tey waxtaan buñ fi def buñ ko xellee war na amal réew mi njariñ amal jàngalekat yi njariñ amal ndongo yi njariñ amal Sénégal njariñ ndax tey askan bi bëgg naa xam ana lan moo wundu nag lii di grève bi ndax grève bi gis nañ saa su nekk dafay am at bu nekk dañ naan euh, nañu sauver anne scolaire bi waaye ma jàpp nag ndegam année scolaire la ñu war di sauver wala boo école sénégalaise dañu war a sauver daañ ci ñëw ci kanam tuuti ba tey ci waxtaan bi ñu fas yéen ànd ak Mouhamadou euh, maanaam Mouhamed Moustapha Diagne mu di directeur de la formation la communication fële ci ministère de l'éducation nationale Diagne lay nuyu maa ngi lay fay bu baax Cheikh di wax euh, asalaamaaleykum euh, ñi nga xamante ni bii yëpp ñu ngi seetaan 2STV di nuyu le secteur général euh, Ndoye Abdoulaye di rafetlu bu baax aussi teewaayam ci émission bi pour leeral di nuyu mon ami mon frère Cheikh donc pour di ko sant aussi pour tout ce qu'il fait pour le système éducatif di nuyu sama grand Babacar qui a beaucoup d'affection pour moi et puis di kontaan aussi di bokk ak moom plateau bi. jërëjëf jërëjëf Diagne kontaan euh, boo xoolee ba ci biir peut-être mbokku téléspectateurs yi euh, daañu wax nag société civile maanaam ñi nga xam ne bokkuñu fenn daal ñoom nag ñoom njaaxaanaay la ñuy tëddee waaye ñoom seen spécialité moonam dañu ne ñoom dañuy taxaw ci lii di secteur éducation jàng ak njàngale bi moo tax tey ñu woo ko moom Cheikh Mbow ci COSYDEP la nekk Cheikh Mbow ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay suñu Cheikh di rafetlu bi ñu def Bokkal euh, SG Ablaye Ndoye bu CUSEMS euh, le DFC aussi Diagne Babacar di ñaan borom bi leeral xel yi ba sa émission bi ñu def tey nekk émission boo xam ne dana nekk bunt bi saafara coow li nga xam ne moom moom la ñu sant fi ñu toll nii. coow coow li bari na de à chaque fois dafay ñëwaat on a l' impression sax yéen ndaje yu ngeen di def c' juste une perte de temps lu ñeen di wax ne maanaam dem toog la te ju naan café wala ay dépenses inutiles parce que à chaque fois on voit que les problèmes reviennent enfin bref nañ ci ñëwaat ci kanam tuuti Cheikh. d' accord Babacar naa la. na fay naa la lool. ah maa la raw. Ah, sa xarit Serigne Mbacke. Ah, wax ñu jàpp si. waaye waroon na wax dem ci système éducatif bi nag. Ah, waaw par exemple ci la bokk ñoom nag waxu politique rek. gars yi wax waxu politique rek. <laughs> mais vraiment merci di la gërëm également di plateau bi invitation yi. maa ngi gis ñi nga invité vraiment par li ñu bëgg waxtaanee am na solo. quoique plateau bi euh, bon am na représentant yu ko mat dal. te am naa yaakaar ni également nañ ci génn maanaam waxu éducation nag moom du jeex mukk dëgg la waaw surtout mais bi li ci gën a doy waar mooy je crois que Mamadou Moustapha dina ciy leeral. mooy que ni gars yi revendiqué wu ñu lu bees. Hmm. maanaam dañu ne dafa amoon loo xam ne dañu ko tënkoon depuis ay at te état bi respecté wu ko au moment où nag fast track la ñuy wax nag doy na waar que lenteur taxaw ba nga xam ni indi na grève. Hmm. loolu daal Cheikh man bëggoon naa cee am leeral ci. ci Mamadou Moustapha après. te damay jàpp ne sax débat bi ab continuité la ndax yow jotoon nga yëkkati li ni mel ci lii. Mm-hmm. yàggul dara ci fan yi ñu weesu. wala boog ci weer yi ñu weesu. Mm-hmm. jotoon nga yëkkati mbir moomu. Mm-hmm. xëy na lu ko xawoon euh, peut-être xawoon euh, maanaam dindi tuuti ci xelu nit yi. mooy maanaam libération Khalifa Sall xam nga Sénégal du ñu gaaw a fàtte. waaye yëkkati woon nga fi ne li ni mel. ba tey nag yàlla dogal lu ñu naan tombé waral ay gaaf. Euh, mu tombeek moment bi nga xam ne ñiy yëngatu ci wàllum njàngale bi dañu dem grève moo tax na ñu ne xaaruñu waxtaan bi jéem a xam un fi waxee comme saafara. Euh, dina tax ba xale yi seen xel dal parce que xale yi commencé nañ jaaxle waaye dama bëggoon juste rek pour permettre suñu mbokku téléspectateur ñu gën a xam lan la ñu war a mu di mbirum njàng njàngale bi ndax tey waa G7 ak waa G20 ñoom ñëpp jot nañu and def seen grève di mouvement boo xamante ne euh, suivre nañ ko quand même sur l' ensemble du territoire ñu jël benn échantillon wala bon un reportage comme sa euh, dañ ko jël noonu rek au tirage comme ça moo ñu jox benn reportage bu Bokar Kande def suñu naataango bu ñu nekkal Kolda ñu seetaan reportage baatu école élémentaire moyen ba secondaire cours yi à partir de 9h la ñu arrêté jàngalekat yi nekk ci grève ñun ñëpp ay jàngalekat lañu kon war nañu booloo. manko bokk yéene taxaw jàmbarloo ak nguur gi ak liñ ci mën a jëlee kii nii daal loolu lay plaider tey fustiger comportement yenn enseignants yi. état bii xam na ni suñu waxee coupure de salaire rek ñu mel ni man dañuy reculer ay waay waay ku bëgg akara nag danga nga ñeme kaan plan d'action bu njëkk bu groupe des sept syndicats ñu wax ni nag ñu gën a bëri ànd nañ ci grève biile jàngalekat yi di ñaawlu lenteur administrative yi. dangay gis jàngalekat bu toog fukki at avancé wu jàngalekat bu toog. def ay examen professionnel jàll nar nekk instituteur wala professeur wala inspecteur toog tamit fukki at yaa ngi xaar numéro de projet wala sa at. lenteur administrative ci bépp fànn ñuy ñaawlu tamit ni ñuy doxalee ci régime indemnitaire yi ak surimposition yi. métti nañu trop métti nañu trop parce que surimposition bi yaakaar naa ñun nu ñu ko mën a jàngatee sacc la. sàcc la par l' état dañuy wax ni sur imposition bi état dafa mën a jël eh, salaire annuel dañ koy sur imposé mais rappel bi. salaire annuel mooy lan. salaire annuel mooy li nga xam li ngay am ci année bi yëpp ak ci at bi yëpp li ngay am ci at bi yëpp bu ko dajalee dina ko war a sur imposé mais rappel bi ce n' est pas annuel. salle bi xumb ku ne bugg a wane naxaraama. je n'ai pas bien compris quand mon responsable. comprendre wu ma li tax sama responsable bi wax ni suñu plan de carrière rek moo ñu war a soxal. qui nous intéresse c'est mooy lu ma bëggul dégg mu mel ni enseignant yu bëri li ñuy ñaxtu nag mooy nguur gi respecté la mu signé nag ñoom te question bu jëm nag ci indemnité de logement yi waruñu ko sàggane. Macky Sall ak gouvernement am la ñuy joxoñ jàngalekat yi gis ne dañ leen a trahir. jàngalekat yi gis na ne dañ leen a di ab reportage boo xam ne sunu naataango mu nekk ci Kolda Bokar Kandé moo ñu ko defal kaddu gi na dama koy njëkk a jox Ablaye Ndoye mi nga xam ne mooy wax ñu lu tax grève bi. Cheikh maa ngi lay gërëm ci invitation bi. jërëjëf boo ma mayee ma nuyu sumay militante militant sympathisante sympathisant di nuyu waajuru élèves yi di wax ne ñun ay waajur lañu di nuyu élèves yi di nuyu waa Sénégal yëpp. di rafetlu waxtaan bi di nuyu nag samay naataangoo yu ma bokkal G7 dama bëgg mu leer grève bi tey amul fu ñu tudd beneen kuréel bu dul G7 je de Saint-Louis j'ai roulé de Saint-Louis jaar Louga jaar Thiès jaar Tivaouane ñëw Dakar Kolda ku doon wax léegi G7 la wax Ziguinchor waa G7 la Saint-Louis waa G7 man maa animé assemblée générale bi Podor Yoro Fay G7 la Jokkel Fay Mbour G7 la. da ngeen bëgg wax yéen a gën a représentatif waa G20 quoi donte ñoom ne woon nañ dañuy ànd ak yéen ci grève bi. non jaay bi bul jaxasee jaxase wu ma de. mun naa continuer. égalit. dama ne grève bi tey débrayage bi. Hmm. ku xool rajo déglu seen reporter bu ñëw Faidherbe dem De dem Galel dem Gandiol dem Tassinère il n'a vu que le C'est le G7 qui a paralysé le système aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire honnêtement. loolu dama bëgg mu leer dafay leer balaa ñuy continuer débat bi. c'est le G7 qui a lancé son mot d'ordre mooy marche suba. Dakar tout est paralysé et cette grève jàngalekat yi dañuy confirmer élection yi ñu defoon en avril 2017 ñun jàngalekatu Sénégal ci démocratie a transparence dañu tànn ñoo xam ne ñoo ñuy waxal ñoo ñuy toogal. dëppoo ak yoon article 5 de l'arrêté signé par le ministre Mansour Sy dëppoo ak constitution du Sénégal ñëpp signé PV nguur gi di waxtaan ak ñoom G7 boobu hmm. ñu ko ëmb mooy ñan mooy le CUSEMS e mooy le SAEMS mooy le CELS e mooy le CELS-A mooy l'UDEN mooy le SNELAS FC c'est le syndicat des arabisans mooy le SIENS le syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal tey ñoo dàkkal jàng bi suba ñooy dox doxu ñax. léegi lu ngeen jublu ci léegi lu ngeen jublu ci seen mouvement yooyu léegi man. lu tax ñu jublu ci mouvement damay rappeler ni les enseignants c'est des responsables c'est des éducateurs boo demoon tay Blaise Diagne ay boroomu kër nga fa fekk ay kilifa. Mhm. ay imam oustaz Sagnane muy jiite Isnelas FC mooy jiite seen gox mooy imam bi. bari na ci biir jàngalekat c'est des responsables toog nañ fi un an kenn dégguñu gréewuñu ñun waa CUSEMS ci biir G7 at bu ne dañuy yëglu ñu tuddee ko ci français lettre d'alerte 22 octobre 2019 ñu bind bataaxal yónnee ko président de la république le président Macky Sall. Hmm. mu tontu ma nag yónnee ma réponse lu mu la wax poñ yi ñu bind yépp ñu def ko ci dañ ma ne rek jot na lettre bi mais ñun lu ñu soxal mooy hmm. poñ yoo xam ne dañ ko consigné dans le protocole du 30 avril 2018 lu tax protocole boobu am am solo parce que protocole dafa am une dimension administrative juridique premier ministre bu woon moo jiite waxtaan bi ci teewaayu madame le président du haut conseil du dialogue social ci teewaayu directeur exécutif de la COSIDEP ci teewaayu coordonnateur de la coalition EPT ci teewaayu président fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal ci teewaayu président de l'union nationale des élèves et étudiants du Sénégal ci teewaayu membre du gouvernement je veux citer entre autres ministre des finances ministre du budget ministre de l'éducation de la formation professionnelle de l'urbanisme des sports ak syndicat yu gën a représentatif beneen aspect particularité protocole mooy dafa am échéance si premier ministre bi mhm. léegi lu ñuy wax dañu koy xayma new ak weer bii lii danañ ko def mais délai yépp yu ñu def ci protocole bi buñ ko xaymaa dañ ko dépassé dañu wax léegi lenteur administrative mooy carrière u jàngalekat dañ ci ñëw mais dama bëggoon d'abord nga yem ci ñu njëkkee ci point bi mu ñu ko wax système de rémunération d'abord système de rémunération mooy lan mooy payoon ñun dañu constaté ni depuis 2000 dafa am rupture de l'équilibre lu ñuy wax ci tubaab une dérégulation exponentielle du système de rémunération études yëpp wane nañ ko président Macky sax d'accord na ci mu am des écarts salariaux inquiétants biñ ko posé en 2014 ñu ne ñu may leen ñu ñu def jàngat. Mhm. à l'époque nguur gi da doon wax l'instrument de soutien à la politique économique de l'État ñu ne dañuy def étude 2015 ñu tegaat ko ci table bi ñu ne dañuy def étude jàngat bi kan moo ko def la cabinet MGP Afrique ku ko tànn nguur gi moo ko tànnal boppam cabinet bi bu mu defee jàngat mi ne ci diagnostic bu mu def système de rémunération amul yamale caractérisé par des iniquités des disparités par une prolifération des agences des contrats spéciaux par conséquent ñu ne il faut ñu corriger ñu ne nan lañ koy corriger ñu ne il faut un système de rémunération juste équitable rénové attractif et motivant. léegi ñoom correction depuis quand ñoom kañ lañ waxoon ne dañuy dañuy def correctif bi. mais loolu dépassé nañ ko yàgg na. te bi ñu président dalalee daaw. Hmm. dafa ñu ne man en plus ci étude bi damay def beneen étude inspection générale d'État moo koy def. Hmm. di fàttali ni étude bi Burkina def na ko daaw Kaboré dafa convoquer une conférence des force vives de la nation su le système de rémunération des agents de l'État du Burkina Faso. maa ngi jóge ci benn séminaire sous-régional avec des Maliens des Nigériens des des Burkinabés ils ont dit qu'ils ont bouclé parce que le combat du mbirum xaalis. lan la c'est un combat de justice sociale et d'équité mooy yamale parce que la paix c'est pas l'absence de guerre c'est pas l'absence de conflit injustice mooy pire ennemi de la paix et ñëpp kàngam boroom xam-xam yi nangu ñu ni système de rémunération Sénégal baaxul léegi janu si ne xool nañ ko gis nañu lu ci baaxul lu ci des nag mooy lu tubaab di wax volonté politique mooy président ak nguuram ak gouvernement ñu wane cawarte comme mu ko Burkina Faso defee ne loolu foog ñu xoolaat Sénégal problème bi mooy les écarts salario da ngay gis tey jàngalekat boo xam ne il a fait bac plus 6 bac plus 6 mooy nga jàng. am maîtrise def deux ans école normale def 30 ans de service. sa salaire du weesu 500 000 francs. conséquence aujourd'hui dinañ ci ñëw. dinañ ci bien wax nañ ko président de la république boo jëlee prof de mathématiques professeur ñuy jàngalee mathématiques aujourd'hui sur l'étendue du territoire weesu ñu 60 maanaam les professeurs d'enseignement secondaire PES. tey ñu bëri ñu doon jàngale mathématique te ñu former leen diplôme lijaase économie la ñu am ñu jël leen parce que dafa am déficit de professeur de mathématique l'autre conséquence tey ci école yu bëri parce que ñun ci tournée lañu jóge boo leen bëggee ma génne leen ay chiffres moi j'étais sur le marché je suis un homme de terrain damay mhm. tëj suma bureau di wër Sénégal je roule je plus de vingt mille kilomètres fu ne laay dugg pour dem xool jàngalekat yi ci condition yu ñu ne dañuy réduire crédit horaire dama war a jàngale six heures par semaine ñu ne amul prof de maths dañ koy wàññi indi ko trois heures donc système de rémunération aujourd'hui c'est une revendication phare et essentielle des enseignants parce que dañu ne équité et justice sociale te président de la République loolu foog mu tontu ci parce que les travailleurs. quitte même le monde ouvrier quitte même comme lu ngeen def à bloquer le système éducatif. non yow kooku c'est c'est vos expressions nous ne sommes pas des fossoyeurs du système. mais non c'est une question et on ne pas faire comme keneen nu ma ko waxee sama benn naataango bu ne Congo dama ko wax mu ne ma ñun bàyyi nañu grève ma ne ko lu tax. Hmm. mu ne comme état bi day tappale ñun tam dañuy tappale ñun bëgguñu tappale. maa reetal tappale moom baaxul du ñu dem Ségouta du ñu dem Melilla c'est ici au Sénégal qu'on va mener le combat parce que Sénégal la ñu am amuñu leen. d'accord Ablaye maa ngi ñëwaat yow Mouhamed euh, monsieur Diagne yow yaay directeur de la formation euh, et la communication fële ci ministère donc de de de nu ñu koy wax de l'éducation bon déglu nañu Ablaye Ndoye aussi am na engagement yu bëri quand wax dëgg si la état bi jëloon na ko mais on n'a pas compris ba léegi. pourquoi engagement yi ba léegi muy tardé ak système de rémunération ndax ba ma ko yàgg na mais ba tey c'est le statu quo qu'est-ce moo ko waral. waaw jërëjëf euh, Cheikh may nuyu ñëpp turu ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla euh, maa ngi yokk aussi dama fi toog comme désormais comme porte-parole di ministère de l'éducation nationale mm-hmm. euh, xam nga en tout cas ren li ñu ministre priorité bi mu am mm-hmm. mooy pacifier système bi mm-hmm. maanaam jàpp nañu ni suñu bëggee jublu ci liggéey bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy fexe ba résultat xale yi baax il faut aussi école bi am jàmm. Mm-hmm. waaw léegi nag ci mbiru li nga xamante ne bii moom mu fi dajale mooy li nga xamante ne bii moo ñu boole ak ñoom xam nga ñoom ren li ñu grève lan la. déedéet système de rémunération. wax na ko te loolu loolu c'est depuis 2005 affaire alignement yëngal nañ ko depuis 2005 boobu président Macky Abdoulaye Wade moo fi nekk moo doon grève bu métti bu ki sant defoon président Abdoulaye Wade yokkoon ci euh, énun logement bi mu yokk ci 20 000 francs mu dem 60 000 pour ñu bàyyi ma koy fàttali kon nekkul loo xam ni euh, dafa bees mais bala ma ñëw ci loolu ma wax ni toujours ñu am ñu wax ni gouvernement bi deful dara am ci ñoom ñu wax ni gouvernement bi li mu def lu tuuti la maanaam euh, boo doon xool géej daal da ngay tax patandaa lay doon mais li am solo mooy. jàngalekat yi ñu ñuy dégg on va parler vraiment peu et bien. revendication yi fanweer 2014 fanweer poñ la ak ñett 2018 ñu jé ñu jëkk ci juróom ñett poñ muy euh, donc plateforme minimale ci fanweer poñ ak ñett yooyu dama lay wax point yi nga xam ne dëgg dëgg nag moo soxal li ëpp ci jàngalekat yi. mooy wàllu lenteur administrative dëgg la ba 2014 comme kii li mu wax jàngalekat mën na toog 10 ans du avancé parce que dossiers yi kenn du ko toppatoo. Hmm. jamono boobu gouvernement bi def opération coup de ci saa si dossiers yi nekkoon en naissance yëpp ñu traité ko traité ko mu tolloon ci 24 000 dossiers euh, enseignants 2014 boobu ba léegi nag ñu accéléré rythme bi. 2019 bi trent mille dossiers traité nañ ko donc boo xoolee période bi ëpp na 50 000 dossiers li ñu traité ci wàllu man a arrêté d'admission maanaam nga am say AP wala nga am say AP wala boog wàllu euh, donc intégration wala boog wàllu reclassement wala avancement bu mu mënti doon dossiers yooyu yëpp dëgg-dëgg ku waxal yàlla xam ni chaque weer ñu mettre en solde donc des centaines d'enseignants publier ko chaque weer enseignant dem ci euh, kii am salaire am fekk fa 2 millions ba 3 millions ba 4 millions. bu ko mais est-ce que quand même rythme boobu ngeen di avancer c'est pas un rythme quand même assez lent parce que man du ma mii di wax ak yow. Euh, ñu beaucoup de gens se plaignent parce que xam nga normalement chaque 2 ans war na ma ay avancer. mais on a l'impression que ça ne se passe pas par 2 ans ça va même au-delà de 2 ans. waaw mais xam nga. Hmm. les syndicats se plaignent mais dama la wax li ñuy def la nga xam ne moo am loo xam ne boo ko demee di nga ko mën a vérifier chaque weer enseignant dem. fekk fa 2 millions 3 millions jëm kaw ne pour rappel mën a nekk rappel d' intégration moo gën a tuuti wala rappel validation mooy gën a bari am na lu ñu ci wax ne eh, impôt bi dafa daf ci bari mais loolu lu ñu mën a waxtaane la mais nag àla kulli alin foog l'impôt moom Sénégal yëpp fay ko pour ñu mën a eh, doxal. Eh, système de rémunération bi nag. waaw ma ñëw rek parce que Sénégal yi il faut ñu comprendre aussi comme dañuy wax gouvernement bi deful dara te. gouvernement bi euh, bon waxam bariwul aussi parce que ñu si mën a wax du du bari am na leneen lu ñuy wax formation diplômante wax na ko sànq ay jàngalekat yoo xam ni dañoo am euh, diplôme euh, économie di jàngale mathématique ñu ni ñoom dañoo bëgg à peu près 413 dañoo bëgg ñu former leen 413 yooyu jël nañu leen yóbbu leen ñuy FASTEF ñuy NFEPS donc ñuy INSEP ñu formé leen ñu ne dañoo am vingt 21000 inspecteurs adjoints dañoo dañoo bëgg ñu formé leen formé nañ ci pour le moment mille li ci des matul juróomi téeméer alors indemnité de logement bi président d'accord na ni bu ñu bu ñu xoolee système bi comme ni mu ko waxee effectivement am na ay disparités moom président la créé wu ko fi la ko fekk. loolu aussi mu leer. mais jël ngeen ay engagement yu bëri. maa maa ngi ñëw. Hmm. engagement bi ci système de rémunération mooy. Hmm. ñu partager euh, ñu def étude bi partager rapport bi foofu la engagement bi yam ak nag ci ay discussion loolu mooy engagement bi te ci kanam tuuti dinaa la wax lu tax en attendant président ni mu ngi jël euh, préposé leen euh, quarante mille francs pour ñu yokk ko ci soixante mille yi. bu ko defee seen indemnité logement day jógee ci 60 euh, 000 euh, dem ci 100 euh, 000 francs Ablaye Wade ñeenti junni la ci yokkoon président Macky Sall yokk na ci président Ablaye Wade président Macky Sall yokk na ci fukki junni ak ñaar te loolu day effectif bu weer bi dee parce que fi mu nekk nii mu ngi ci 85 000 francs weer bu dee. ñu ko boo ko jëlee nii 40 000 francs boo ko waxee nii. dafay dafay dafay nuroog lu lu simple mais quarante mille francs boo ko jëlee nga multiplier ko par 50 000 wala nga multiplier par les 97 000 enseignants donc da lay jox 3 a 4 milliards boo xam ni par weer président Macky Sall da koy yokk. ci sa jàng salaire jàngalkat yi. mais est-ce que loolu du gën a yokk quand même. budget bi nga xamante ne moom moo di. parce que vraiment la masse salariale c'est c'est mooy mu ngi créer budget état bi. waaw waaw te gis nañu sax quand même dépasse un peu les normes de l'UEMOA fixées par l'UEMOA. waaw normal na parce que jàngalekat yi mérité nañu ko quand même parce que am na jàngalekat yoo xam ni ñu ngi ci abri provisoire di jàngale. Mhm. am na jàngalekat yoo xam ne ñu loolu xam nañ ko jàngale kenn amul fayam ndax mooy bu yàlla doon am métier jàngale li doon yonente yi seen métier jàngale la woon loolu moom kenn mënu leen xëy mais kon lu tax muy sooxe Sénégal maintenant mu ngi sooxe sooxe bu garaaw foog ma jox ma ñëw système de rémunération bi pour terminer foofu système de rémunération bi gouvernement bi bañu ko parce que dëgg-dëgg personne ne peut comprendre euh, un PS bac plus 6 un magistrat bac te salaire yi di am yenn différence. disparité loolu wala boog entre un douanier et un. et un et un instructeur et cetera c' est kooku constaté ko mais suñ ko bëggoon def tey concrètement lan lay doon bi ñu ko jëkkee euh, calculer hmm. il faut cent 384 milliards yoo xam ne par weer dañ koy yokk ci masse salariale jàngalekat yi pour mën a aligner fi mu nekk nii suñ ko bëggoon c'est-à-dire il faudra 500 milliards maanaam juróomi 500 mooy juróomi téeméer noonu. Hmm. juróomi téeméeri milliards yoo xam ne dañ koy jël yokk ko ci. son suñu dépense de personnel actuellement c' est 416 milliards. Hmm. daanaka il faudra que gouvernement bi am 1000 milliards pour fay jàngalekat bi chaque weer loolu lay allé loolu lay signifier pour corriger ko loolu nag te Sénégal yëpp léegi yeewu nañu loolu ku ne xam ne Sénégal mënu ko ko parce que nous avons un budget de 3 quelques milliards soit suñ ko euh, pour le moment mënuñu ko donc li li ñu mën a def comme président def na ci jéego yokk na seen indemnité pour man li gën. moo ñu continuer waxtaan ci point boobu. seet naka lañ may def pour trouver ci solution. et jàpp naa ne aussi jarul tëj ay ay classes te it naa ni euh, les syndicats surtout le G7 war nañu xoolaat seen méthode de lutte donc la lutte comme arme de grève euh, comme euh, la la grève comme arme de lutte mais loolu ci kanam dinañ ci ñëw. Cheikh yow est-ce que comprendre nga ce qui se passe actuellement parce que vraiment assisté nga ci rencontre ndax bu ma leen gisee rek xam naa ne yàgg ngeen seq ay waxtaan. vous comprenez ce qui comprendre nañ li xew waa pour être honnête parce que tey Sénégal euh, koo fi woowoon tey li ko laaj ci mbirum éducation war na la mën a wax saafara bi ñun ñëpp xam nañ saafara bi li nga xam ni daf ñoo jaaxal mooy feebar bi fi amoon daaw jéeg il y a dix ans amaat fii il y neuf ans même feebar bi mooy feeñaat ren même revendication ngay dégg Ablaye wax ko non respect des accords même réponse ngay am ci institutionnel bi mu ne def naa ay jéego. même dénouement ngay am bu ñu toogee ba mois de d' avril mai chef religieux yi ñëw médiateurs yi ñëw ñu calmé peut-être ñu am protocole 2020 même résultat ngay am mooy xale yi lajj boo amee fukk xale. ñett ak ñeent ñoo si jàll. parce que gis nañu ne durant les dernières années taux de kii bi euh, réussite bi du weesu entre 30 ak pour cent. et là c' est c' est dramatique. pour un secteur qui milliards. li yéeme mooy. Hmm. amul évolution dans ce sens la xam nga ñun jàpp nañu luy dund lu ne même nit buy dund yenn saa nga feebar ah, am jafe-jafe 2S buy dund yenn saa moom ay jafe-jafe donc système éducatif buy dund mën na am ay jafe-jafe mais dana nekk yu bees hmm. mais bu fekkee at bu jot même jafe-jafe yi mooy ñëw day mel ni soit amuñu compétence bi ñun mënuñoo faj saafara bi ou alors amuñu volonté bi décidé wuñ ko lijjanti mu féete boor ou alors day xaw a sax ndoog sabotage. yow lan nga gis ñett ñooñu ñett yooyu yëpp bu ne mën na ci am en terme d'analyse donc loolu moom mooy loolu moom mooy premier aspect bi nga xam ni mën nañ ko gis beneen bi nga xam ni gis nañ ko mooy boo xoolee ci at bi passé yaa ko wax atum dal la woon mais atum dal bi lu mu ñu jariñ est-ce que jariñ nañu ñu am une approche prospective de prévention wala dañu war a nekk toujours ci gestion de crise que ñun suñu xam-xam ak suñuy coup point poing ak suñuy sur effort yi ñuy def j'ai beaucoup aimé annonce yi nga xam ne ministre de la fonction publique moo la def après le dépôt du préavis de grève mais effort sur effort yooyu ñuy def bu ñuy nekkee en plan di mettre en œuvre seen plan d'action pourquoi mënuñu nekk dans une approche de prévention di ko def avant et non pas di bàyyi ba nga xam ni affaire bi nekk na dans une situation de pourrissement donc ça ñun pour ñu préoccupation ren nan la commencé atum ren dafa commencé nga dégg élèves yi ñun ñëpp ñu génn lu ñu doon wax problème mu toilette ndox bu ñu manqué clo bureau de clôture nga dégg étudiants yi ñun la lan bourse yi nga xam ne fayewuñu loolu tamit du lu bees loo xam ne mu ngi koy dégg nga dégg bi ñu jóg ONG yu ak de parents d'élèves ne déficit en enseignant déficit en table yooyu yëpp aussi du way bu bees suñu nga dégg aussi ñii muy syndicat yi déposé préavis de grève kañ lañ ko déposé décembre gouvernement bi am lan 30 jours pour tontu j'ai aimé quand Ablaye me dit que le président de la République a réagi ci ñoom seen lettre d'alerte mmh. mais ça aurait bien aussi que son gouvernement fasse de même préavis de grève bu ñu ko déposé première chose pour montrer que ni respecté nga nit ñi respecté nga ki nga ki nga ko ki nga ko sekkal mooy nga tontu ko day dalal xel tontu ko pour wax ko ni waaw jot naa ko li nga wax amul de lii moo tax amul hmm. waaw jot naa ko li nga wax am na mais mënuma ko faj kaay ñu waxtaan ci wala waaw jot naa ko li nga wax amul il faudrait évidemment ñu ubbi ay waxtaan par rapport à ça mais s'il n'y a pas de réaction par rapport à ces préavis dañuy fàttali gis nga euh, suñu Cheikh éducation il faudrait que ñu ñëpp ñu considérer ni moom moo war a nekk suñu priorité et par conséquent am na yenn mbir yoo xam ne dañu ko war a dépasser définitivement waruñoo nangu benn yoon classe tëj ñu ne jàngalekat bi problème avancement moo tax mu classe parce que su ma juumulee am na keneen a lijjanti l'éducation c'est un droit quand même. c'est un droit donc am na keneen ku war a lijjanti affaire avancement am ay plan de carrière am nit ku ne kuy liggéey ku ne da nga bëgg at bu jot ngay sentir ni am nga ay jéego da lay motiver. waruñoo nangooti éducation ñuy toog man am na ñu ma woo naan ma weer wala toog nañ ba le 15 doogu fay salaire loolu dafa war a xewi koo xam ne kii li koy fay sax il constate qu'il est sous-payé pour ne pas dire waroo ko ci booleel mu toog ba le 15 du jot salaire am wala mu ay problème indemnité question yu sew yooyu muy avancement plan de carrière ay salaire et indemnité dañ ko war a weesu définitivement. mais Cheikh des accords réalistes et réalisables aujourd'hui est-ce que quand même ces accords sont réalisables. waaw xam nga pour ñun en tant que observateur dañuy jàpp ni ces accords sont réalisables xam nga fan fi ñu ko hmm. parce que ñii dañoo am ñaxtu ñëw jébbal ko nguur gi ñun observateur lañ de lu ñu négocier de nguur gi jël ko te nguur gi am na expertise yëpp am na façon xam bu ne. nguur gi mu ko neexee jël ko mu jàngat ko xool ko xool xoollu ko ba finalement mu ne ci li ngeen wax lépp lii ak lii laa juboo mais mieux ci ñu juboo yu ne mu ne bii ma jubóog yéen bii waxtu laa koy def kon nag bu fekkee ne ñun bokkuñ ci négociation ñun loolu dénouement wax la ñuy considéré dañuy considéré ne nguur gi ne woon na waaw lii mën nañ ci juboo te waxtu wi laa koy defee maintenant évidemment Diagne laa di am nay affaire yi nga xam ne def nañ ko ci yenn aspect mais li gën a jafe li ëpp jafe yi am yi mooy que ni non respect échéance yi nga xam ne mooy am mooy rythme bi nga xam ne jubóo woon moom la ñu war a góorgóorloo ci def koy effort loolu mooy li nga xam ne am. parce que moi euh, oui. moo ngi articulé wu autour de ces deux points pour man que je considère les points les plus essentiels. benn mooy lenteur administrative wax ko ko sànq. Mhm. yéexande bi am ci nit ki di war di avancer da koy motiver. même état dafa am intérêt dafa war a am sax intérêt wu lijjanti yooyu parce que da koy motiver te ko digitalisation. wax nañ ko mën a def parce que Sénégal en terme d' informatique amul benn réew boo xam ne moo ñu fi jiitu woon pourquoi mënuñu définitivement sinon chaque année cette question là va revenir parce que chaque année loo bi day yokku et donc par conséquent chaque année tu vas avoir besoin de faire des coups de benn ñaar moom mooy système de rémunération système de rémunération nag bu ñu koy wax ñun liñ ci fekkee te te mën koo seet mooy bi ñu jàppee ñun ñëpp que c' était un système qui était déséquilibré danoon nañ def gëstu bi bu ñu defee gëstu bi nañu bi ak li fa recommandation yi fi génn ñu teg ko ci table ñëpp ñu waxtaanee ko ce n'est pas forcément qu'il faille demander 500 milliards ou 1000 milliards cest dire que chaque fois bu nekkee di gouvernement dafa jàpp ni moom kese moo war a nekk porteur de solution boobaa mën na am ay jafe-jafe mais bu ñëwee ni ñu bañ a ranger recommandation yi génn ci système de rémunération ñu teg ko ci table bi solution bu ñu génnee. cela sous-entend également que même ñiy revendiquer war nañ bàyyi bi maanaam bu nekk ñu laaj un peu en deçà de ça quand même. non non bëgg a wax. non je crois la bëgg a wax. le problème mooy. que le en collaborateur et en partenaire. cest à ñu mujjee fekkee man ñu mujjee dem monitoring j'ai eu l'impression que étude bi ñu def sur le système de rémunération dañu ko bëgg a ranger parce que nguur gi xëy na jàpp na ni affaire bi métti na jafe na complexe na effectivement métti na jafe na complexe na mais il faut ñu jàkkaarloog moom puisque ñu ñëpp dañu jàpp dafa déséquilibré maintenant bul jàpp nag ni solution bi yow rek yaa nekk porteur bi tu peux faire tes calculs ci 500 milliards xëy na ji boo leen woowoon ci système de rémunération mën nañ am leen loo xam ne mën nañu ko bàyyi mën na am yeneen solution yi ñu lay proposé yi nga xam ne mooy tax ñu ci génn mais bu ñu am impression que ni dañu ranger dossier hmm. dafa toll foo xam ne question de rôle rek kay ma nekk directeur COSYDEP kii nekk ministre que la nekk président de la question de rek. Hmm. mais xam-xam bi moo ngi fi bu ñu nekkee dañu dañu dañu nawlante en tant que nawla dañu nawlante di waxante loo xam ne mooy am chaque fois ñuy def le bilan di ci waxtaan. Hmm. bu ñu ko def rek amul problème boo xam ni Sénégal wartu mën a am solution. mais tant que defuñu ko rek dañuy am impression que dafa am ñoo xam ni wax dëgg yàlla dañ leen beddi. Hmm. am ñoo xam ne duñ leen déglu wala boog am ay yoo xam ne boo ci eggul rek. kenn du la dégg tey ji dafa mel ni boo eggul ba nekk ci mbedd mi sànni xeer kenn du la dégg loolu baaxul bu ñu dëppoo préavis war na doy boo ñëwee yónnee euh, lettre d'alerte war na la mën a tontu loolu bu ñu ko dee waxtaanee di prévenir di ci waxtaan balaa mbir di ñëw dana mën a tax ba yii mën a dal bu yii dalee nag ñu mën a jàkkaarloo yeneen défi yoo xam ni bu ma dellu see xëy na ci waxtaan bi bien sûr dama dellu si dama a jox Babacar parce que Babacar yow tam yaa ngi suivre depuis un certain euh, lu bi ma jaaxal aussi Babacar a chaque fois euh, da ngay gis dañuy bàyyi situation bi pourrir ba nga xam ne dara desul fu mu toll lu dul école tëj ñu ne essayons de sauver l'année scolaire mhm. mais jotul fu mu toll nii vraiment que loolu arrêté ba pare ba li nga wax li nga wax c'est important ba pare di boole di boolee enseignants yi syndicalistes yi ak euh, seen sénégalais yi. population bi daal waaw population bi xam nga boo dégloo léegi monsieur Ndoye commencé na daan ne ay communication problème de communication bi. c' est très important xam boo xoolee sax si grève bi rek état bi en tout cas les dirigeants ne nañu ni euh, nee nañu la ñuy wax enseignants yi dañuy yokk salaire dañuy laaj yokk salaire alors que c' est pas ça mais toujours est-il que bu ñu ko waxee rek am na ñoom loo xam ni mën na tardel seen xeex pour population yi daa leen dama seetlu seen grève yi passé dañ leen a woon ak population yi ba nga xam ne ñoom pour ñu wax sax ci seen revendication c'était compliqué te même stratégie boobu laa gis euh, bi ma déggee monsieur Diagne muy communiqué ci stratégie boobu la nekk maanaam ñii dañ lay laaj revendication nga di voilà mais ñun def nañu lii def nañ lii maanaam yow boo fekkee da ngay wax budget c'est vrai euh, budget boo xam ne ay 4000 milliards la nga di maanaam enseignants yi mën nañu dem ba leen di fay 1000 milliards milliards maanaam le le tiers ou en le quart le xam nga loolu sénégalais bi déglu xel man na ko bañ a nangu mais ñii tamit li ñu wax li ñu wax c'est vrai parce que budget bi aussi salaire yi c'est vrai que enseignants yi toujours ñu tudd ko mais ñi nga xam ne ñoo yokk salaire yi mais dañ ko war a wax xam nga chaque jour ñu wax fii ay contrats spéciaux yoo xam ni ay nit ñu leen di fay maanaam loo xam ne jéggi na dayoo. Mm-hmm. te pourtant kat peut-être enseignant bi moom moo ko gën a mérité. loolu loolu mbir la il faut que mu am importance également ci dialogue bi que ñu ngi wax problème waxtaan bu fekkee dialogue bi da ko dénk ay nit. parce que tous les Sénégalais hein, sur la forme n'ont pas compris du jour au déjà sax il est important que Innocence Ntap madame madame ñu xam ñu xam quand role rôle bi dialogue la commission am parce que du jour au lendemain ñu indil la Cheikh Cheikh Kanté c'est vrai que PSE la je crois que waroon nañu mën a continuer ak ñi nga xamee ni ñoo doon négocier que ça soit le ministère ou autre peut-être dinañ gën mën a mën mais comme ça du jour au ñu indi Cheikh Kanté comme par exemple un un kii dans la ñëw peut-être que il va prendre du temps pour comprendre ni mu demee. mais Babacar juste une petite parenthèse est-ce que li am nii sax mu tombé dialogue national bi nga xam ne tàmbali nañ ko. est-ce que waruñu woon yóbbu mbir yi tamit foofu yeggi ko foofu jëm ci waxtaanee foofu. pour xool da nga mën nañ trouver solution non gis nga dialogue dialogue bi. Hmm. je crois que ñi si joxe idée bi am solo mooy que ni li nga xamee ni état bi noonu lay fonctionner mën ñu ko yóbbu yóbbu si dialogue national. parce que am na des structures yoo xam ni officielles qui ont été créées muy ministère yeeg yëpp état bi di di ci liggéey. fële je crois que am na leen loo xam ni comme ni ñu defoon ci assise nationale rek quoi des des choses yoo xam ni que au niveau du gouvernement mënuñu ko régler mais man li ma gis ba gis mooy que ni lan enseignement bi je crois que mi nga bëgg a yegg mais toujours damay gis ni fuite fuite fuite en avant la fuite en avant la état bi def maanaam à chaque fois tu te rappelles euh, en 2012. vraiment bi grève bi méttee ba nga xam ne année blanche la ñëpp tiitoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur bi tey dañoo jël ay engagement wax syndicat yi presque d'accord lu bëri. ba nga xam ni sax syndicats yi en ce moment là bon les gens peuvent peuvent nañu si bañ a d'accord voilà mais nee nañu ñoom daal dañuy ànd ak président Macky en tout cas opposition la ñu àndaloon pour daaneel Ablaye Wade. Hmm. parce que en un moment donné ne réglait plus leur yoo xam ne ñiy toog si nguur bi léegi parce que bëggoon nañu peut-être ñiy voté leen wala yooyu enseignants yi ànd ak ñoom mais bi ñu toogee engagement yu bëri ñu jëloon respecté ko xam nga lool la loolu la monsieur Mbow wax léegi attention du ay revendications xam dañu ko ñu ne mënuñu ko ñoom. dañu ne yii mën nañ ko sélectionner je me rappelle parce que après bi ñu jëlee engagement yooyu dañu woote wat ñu ñëw ñu teg yenn yi daal ne yii moom mënuñu ko def yii voilà maintenant il faut être réel nekk nekkatul nekkatul promesse c'est des engagement fermes qu'on qu'on va prendre mooy yii nga gis dañ koy wax yeneen yi mooy Cheikh dañu jël engagement yu bëri yoo xam ne les moyens ne l'ont pas permis parce que Sénégal aussi c'est c'est inquiétant hmm. dañuy joxe Euh, chiffres yu bëri wala promesses yu bëri yoo xam ne ils n'ont pas les moyens de leur politique par exemple abri abri provisoire yi ñuy wax. Ah, demoon nañu ba yeggoon si 6 000 yoo xam ni xaw ma 3 abri provisoire yoo xam ne dañ ne woon. Mhm. dañ koy def chaque année en tout cas année bi ñu génn mais en fait ils l'ont pas fait parce que xaalis bi war a tax ñu def ko amuñu ko woon pour pour def ko. donc de telle sorte que finalement on ne comprend pas par rapport à ces bu fekkee dañu uti moyen feneen ñu j'ai l'impression que aujourd'hui budget bi ñuy wax ak maanaam li ñuy jëf c'est c'est trois il faut que ñu arrêter di mettre en mal les enseignants avec les populations à chaque fois di dire que voilà ñu ngi laaj lii alors que yéen gis ngeen vous n'avez pas ceci vous n'avez pas cela. mais moi je me pose même la question de savoir est-ce que quand même budget bi ñuy wax ne alloué nañu ko éducation est-ce que réellement tout ce budget va dans le secteur na parce que vraiment c'est mais bu ñuy wax ni enseignants yi jox nañ lii ci disparité bi ñoom ñëpp d' nañu ni quand même mënoo fay kii li muy liggéey nga koy fay moins de 500 000 francs te alors que en d'autres termes am na ñoo xam ne yaa ngi leen di fay ay 3 millions ay millions ay 15 15 15 millions peut léegi wàññi nañ ko mais am na des directeurs d' yoo xam ne public yoo xam ne kii touche ay 10 par mois mais quand même je veux dire c' que Sénégal dafa am noo xam ne dafa war a doxee gis nga ñii bu fekkoon da nga leen tënk ci nga xam ne réalité la noon ngay doxee ñu fekk ci la ci mën nañoo comprendre mais quand il y a deux poids deux mesures mu am ñoo xam ne ñu ngi leen di traité da nga leen di favoriser par rapport à d'autres ça ça c'est des problèmes mm-hmm. mais l'un dans l'autre je crois que il est temps que ñu toog xawma assise la xawma mais xam naa duñ ci ñëwaat ci assise parce que woote nañu ay assise de l'éducation boo xam ni euh, kii euh, Diagne Souleymane Bachir moom moo ko jiite woon ne me mais on se demande au début des années non non même de l'éducation n'avait rien donné aussi c'est vrai que am na ñu mujj ni universitaire éducation nationale et tout ça mais conclusion yi de chaque rentrée dañuy daje ñëpp si ñëpp acteurs yi mais parce que ñoom aussi seen xeex seen xeex tamit on peut comprendre c'est le meilleur moment qu'ils peuvent choisir aussi pour pour c'est que bu ñu xamee moment bii c'est assez crucial peut-être nit ñaa ngi xalaat année blanche wala la ñu mën a jógee parce que à tout moment ñu ngi lay woo si seen i seen i accord yow fekk si la. et ce sont les qui paient pour casser quoi. finalement finalement. Ndoye. Diaby vous savez. <coughs> j'ai bien écouté les interventions. la différence c'est que moi j'ai eu la chance en 2007 d'être autour de la table. xam naa ne professeur nga da ngay jàngale. Ah. mais wolof ñu wax ko wolof. président Abdoulaye Wade. négocier. ñun ñoo doon waxtaan ak l'actuel président Macky Sall doonoon premier ministre mu nekkoon si ses ñu xaar ko ba 18 heures man kenn nettaliwuma xam nga yéen da ngeen di expliquer man dama ko fekkee teewee le directeur parle de 60 000 non c'est pas une augmentation de 60 000 je vais être précis. allez-y on en a besoin. en 2007 l'indemnité de logement des enseignants. mm quarante mille la woon ñu poser la question de l'alignement ñu waxtaan ak le ministre de l'éducation Moustapha Souran mi ne moom mënul dépasser augmentation vingt cinq mille mais il a porté la revendication ñu ànd dem primature xaar premier ministre ba dix neuf heures moi j'ai quitté mon lycée les Parcelles Assainies pour ñëw ci rencontre bi ñuy waxtaan ba mu yàgg présidence woote li may wax président Macky mu ñuy seetaan mu koy mu ngi may déglu ne nañu indi réunion bi présidence mm-hmm. ñu dem toog présidence on a discuté avec le président c'est là où on a porté ñu jël indemnité bi jëlee ko quarante mille yóbbu ko soixante mille ñu créer indemnité documentaire compensatoire de surcharge horaire mais indemnité boobu jàngalekat yi joxuñu leen ko rek nii dañu ne yow fukki waxtu ak juróom-ñett ngay def léegi da nga koy yokk pour ñu mën la jox indemnité lu tubaab naan un accord gagnant gagnant. Mhm. man dama ko teewee kenn nett lu moom yéen da ngeen di expliquer mais man dama ko fekkee toog. mais sur le système de rémunération alignement de l'indemnité de logement ñu ne foog ñu def ci jàngat xam nga bu nguur demee benn nangu ne injustice am na président nangu ne injustice am na boroom xam-xam yi nangu ne injustice am na injustice boobu dañ ko corriger mais je voudrais rectifier il faut qu'on soit précis jàngalekat yi mësuñu wax jox leen nu xaalisu réew mi jàngalekat yi dañu ne équité et justice sociale may paraphraser le président Macky Sall mu ne équité territoriale bu muy def ci discours fin d'année parce que équité yamale moo yor réew loolu la jàngalekat yi wax parce que du mbirum xaalis conséquence bu muy indi mooy démotivation et démoralisation pour ne pas dire déprofessionnalisation du corps dama ne 60 professeurs d'enseignement secondaire moo am et wax nañ ko président tey bu ñu formé woon 1000 professeurs de mathématiques ñépp danañu dem parce que dañu jógee station bi dem ci station boo xam ne am nañu yaakaar danañ leen fay la motivation l'enseignant mooy le premier intrant qu'il faut former et motiver dafa ne 300 milliards mais président nee na jël nañ 300 milliards jëndee ko oto 300 <laughs> milliards yooyu école bu ñu ci defoon 5000 milliards jar na mais chiffre yu muy wax ni ñun waxuñu ko mhm. man nag xaw ma chiffre yi fu ñu ko jëlee <laughs> mais ñun dañu ne waxtaan nañu wane nañu ni amul équité dafa am écart salariaux ñii dañuy fayee juróom benn fukki junni ñii juróomi million ñii fukki million ñii fukki million nga juróom rax ci dolli ñun jàngalekat ñun leer na dañuy fay impôt ndax dañu koy dagg à la source hmm. trente mille quarante mille cinquante mille mais fii boo jëlee assemblée nationale gis nañu bulletin de salaire boo xam ne mille cinq cent la ñuy fay ci réseaux sociaux muy circuler ñu signé ko ñetti téeméer la ñuy fay mais nant boo ñëwee ci mbirum rappel yi attention rappel yi du xaalis bu ñu jox bu ñu may bor bu ñu yoreel la buñ ko xaymaa ñu ne 83 milliards benn góor ne ma ko dee ngeen ku ñu yoreel 83 milliards Sénégal wax ma ban koor lañu fi yoreel 83 milliards amut présidence conseil économique fenn yoruñu bor bu ñu ñoreel mais rappel boobu bu ñu ko joxee dañ ko surimposer dama jógee Saint-Louis benn professeur ne ma hmm. démb ci AG bi man un million cinq cent lañ ma jox rappel ñu imposé jël huit cent mille yi mu desee ma sept cent mille keneen na ma deux millions laa am quatre cent mille ñu jël un million quatre-vingt mille benn principal ne ma hmm. indemnité de suggestion un million quatre cent mille laa am ñu jël quatre cent mille boo waxee ñu ne l'impôt est annuel mais lu ñu jaaxal bu ñu tasee ak le coordonnateur du budget daf ñu ne y a un problème de logiciel au niveau de la solde c'est le logiciel tunisien <laughs> boobu benn prise maintenant boo ñëwee ci lenteur administrative dafa ne trente cinq mille actes mhm. mais xam nga quand on discute dafa am ay objectif quand Sénégal va en Coupe d'Afrique dañu ne objectif indil leen ñu Coupe d'Afrique mhm. boo ne gagné na Égypte ak Salah wala gagné naa Messi du suñu objectif ñun suñu objectif mooy la coupe d'Afrique sénégalais yëpp di ko ñaan nguur gi daf ñu ne deux mille dix dinaa mettre en solde dix mille enseignants dix mille mises en solde ñu dem sali ñu xayma waa solde ne trois mille cinq cent la ñu def. ñu ne lu tax ñu ne parce que yeexaay traitement dossier. neel benn. benn. yéexaay traitement dossiers yi tax na tey ay jàngalekat yu bëri dañuy dem retraite duñ plafonné day am impact sur la pension de retraite. Mhm. yéexaay boobu tax na tey jàngalekat du mën a compétir au poste de responsabilité. nee nañu def nañu ay junni mais moom yi boo demee euh, fonction publique da fa gis ay junni jàngalekat ñu toog ci suuf di xaar ak ñun mënuñu defati liggéey ci syndicat yi. bu ñu xëyee suba ba ngoon affaire acte la ñuy toppatoo. ADIE agence de l' informatique de l' état dañu def séminaire Saly ñu ne ñu USAID moo leen di financé à hauteur de deux cent cinquante millions mais doyu ñoom solution bi du guichet unique du opération coup de poing la dématérialisation effective mais dañ koy yóbbu ba ci IEF yi. jaratul ngay jël dossier dugal ci ay kees. yenu dugal ci camion indi Dakar. Ah, da nga koy scanner rek mu ñëw. mais loolu day wax ni BRH yu nekk ci UFIA yi ñu am formation pour le contrôle de qualité parce que mënuma nangu man wax naa ko tey Ndar wax ko Charles de Gaulle wax ko FEDER. yow nga déposé sa dossier IF ñu ne dossier bi baax na validé ko mu dem IA ñu ne validé nañ bu dem éducation ñu ne validé nañ ko mu ñëw fonction publique ñu ne la ce certificat de nationalité baaxul ce premier OS baaxul donc y a un problème de contrôle de qualité mmh. maintenant rappel yi muy wax dafa am lenteur tamit rappel d'intégration man lu ma lay wax lu leer laa la wax nous sommes au matricule 691 447 boo jëlee rappel d'avancement et de validation au est au mois de février 2019 te matricule bu ne série la ma jël suñu benn expert il est docteur en mathématiques docteur en comptabilité bi mu defee calcul yi mu ne il nous faut dix à quinze ans pour apurer les rapports alors que dans le protocole que j'ai sous les mu ngi nii ce protocole a une valeur testimoniale juridique parce que gouvernement Sénégal moo ko signé man lii laay sukkandiku man ay accordu c'est ça notre support

jàngat nañu mën nañ ko xool nañ ko danañ ko def à partir de 2018 rappel yëpp dañ ko fay mais ren enveloppe bu ñu waroon fay rappel yi duñ ko jeexal day dem fonds libre à cause des lenteurs administratives d'accord léegi Abdoulaye déglu naa à cause des lenteurs administratives rappel yee wax nga ko euh, mais bu ngeen xoolee aussi yéen nga xam yéen a quand même ci enseignants yi yéen enseignants yi parce que vous êtes dans la fonction publique c'est vrai que yéen a ngi réclamer par exemple une euh, maanaam nu ñu koy waxee tiwaay euh, une un système de rémunération équilibré pour que ñii nga xamante ne admettons pour permettre suñu mbokk téléspectateurs yi ñu gën a mën a xam lan la ñuy waxtaane ñi am bac plus 6 nekk ci yeneen secteur yéen tam ngeen nekk dans le secteur de l'éducation am bac plus 6 war ngeen am plus ou moins les mêmes traitements salariaux mais est-ce que également yéen ak corps bi ngeen xam ne quand même c'est un corps assez large yéen gën a nombreux mais est-ce que quand même l'État peut se permettre que à tout corps bi nga xam ne yéen ñëpp ngeen ngeen yore mu mu équilibrer leen aligner leen quand même au même niveau l'enseignant du Sénégal se félicite du salaire du magistrat magistrat war nañ ko fay cinq millions par weer mhm. douanier war nañ ko fay cinq cinq millions soldat war nañ ko fay ñu waxuñu méngalewu ñu xooluñu lu keneen am dañu ne équité et justice sociale loolu moo yor réew parce que le budget de l'État c'est les impôts yu ñuy fay en 86 bi Sénégal amee problème pour yóbbu équipe am Coupe d'Afrique dañu ne jaaykatu gerte bi mair yi dañuy jaay ba ngoon xam nga dañuy fas pièce yi ñu fecc ne lii juróom benn fukk yi maa ko dugal ci équipe nationale kon réew bu ñu koy jox dañuy yamale ñun waxuñu ñu jox ñu alalu réew mi waxuñu ñu jox ñu lu kenn amul dañu ne nañuy yamale magistrat bi lu mu am da ko yelloo ñun waxuñu ñu jox ñu yamale yépp dañu ne système de rémunération équité et justice sociale bu ñu ko toogee. waxtaanee président nangu na. experts yi nangu nañ ñëpp nangu nañu ne dafa am écart salarial. bien sûr ñu waxtaan wax naa ci étude bi mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que lire nga les conclusions de l'étude l'étude dafa ne le système de rémunération est frappé d'opacité maanaam leeru dafa lëndëm mm-hmm. mu ngi ci étude de système de rémunération. d'accord donc loolu moo tax ma dolli ci benn poñ ci lenteur administrative. les profs d'EPS état bi 2007 lañ ko wax dañu war a créer le corps des professeurs d'enseignement moyen en EPS mais pour ñu def ko foog ñu modifier la loi 77 11 77 du 30 décembre 1977 et la loi 803 2018 du 30 avril 2018 lu tax ñu war ko def parce que MEPSI ñu ñu naan MEPS maître d'éducation physique dañu bëgg a l'extinction maanaam corps boobu dañ ko bëgg a fay reverser leen ci corps bu bees bi 2007 ba léegi ñu ne ñu décret bi mu ngi ci circuit bi neel benn ñaar 84 non may ma jaabi lu ma lay wax c'est important. non c'est mais mënu ma bàyyi aussi nga monopoliser par xam nga c'est un temps foog ñu distribuer. jaabi ma nga fi am de. depuis 2014 ñu ngi leen dugal ci système bi. mais ñu leen intégrer parce que amuñu cadre juridique au même moment les IA IA yi dañu lancer avis d'appel à candidature pour recruter des chargés de cours en EPS 178 professeurs d'EPS titulaires sortis du sortant du CNEPS ñu ngi chômer ñi ñi xamuñu ne professeur d'EPS dafa uteex professeur de sport. d'accord léegi dinaa ñëwaatee Diagne ayo bismillah. jërëjëf Cheikh je pense que il faut ñu bale yi yu yu bari. parce que euh, am na ay confusion yu bëri ñu fi wax euh, xam nga ci wàllu euh, prière dafa am lu ñuy wax sectoriel maanaam ministre de l' éducation nationale daral na G7 bi mu ñëwee ñu waxtaan daral na syndicat des inspecteurs ñu waxtaan ministère yëpp par secteur dañ dañ koy dañ koy def pour diligenter les dossiers bokkul ak monitoring nga xam ni le ministre Cheikh Kanté moom la lañu nommé pour mu assurer ko bokk parce que kooku euh, benn réunion la euh, périodiquement mais sur les dossiers constamment dañuy discuter ci dossiers yi par exemple sur les mises en position de charge dama ci liggéey ak euh, le secrétaire général Abdoulaye Ndoye dama ciy liggéey ak le secrétaire général kii Saourou Sène sur le CNES le décret sur les CRFPE dama ciy liggéey ak le CNES comme yeneen directeur comme yeneen service état bi ni ñu koy defee directement au niveau de la fonction publique am am na ñuy liggéeyal loolu surtout diligenter les dossiers nekkul que dañoo toog faire état dafa toog rek croiser les bras deful la déedéet chaque jour ñu ngi ci dossiers yi maintenant nag périodiquement les ministres par département reçoivent les ou bien le G7 ou bien euh, donc euh, individuellement les syndicats du du G7 parce que du ñu recevoir aussi GFB ko so na leer euh, donc maintenant ci ci kii ci institution yi wax nañu boy dañoo créé institution nangam la da ngeen di jaawale il faut faire très attention institution fa ay jàngalekat yi faa nekk cabinet ministère yëpp ay jàngalekat nga au conseil ay jàngalekat nga fa boo demee assemblée ay jàngalekat nga fa présidence ay jàngalekat nga fa loolu aussi dañ ci def attention bu baax nekkul rek président Macky Sall dafa jël ay nit fële jël leen euh, planète Mars te euh, indi leen ci ci institution yi jàngalekat yi ñu ngi fépp kooku aussi dañ ko dañ ko xam ñu aussi URD euh, SG li ma wax yow dama damay li ma wax dafa dafa leer dama ni yow sax yaa ko leeral Abdoulaye Wade daf ñu jaayoon parce que comme Sénégal yi la ñu waxoon moo dugg ci ay IRD extra Sénégal Ablaye Wade daf ñu jaayoon 20 000 francs yi Ablaye Wade 20 000 francs yokk Macky Sall juróom-ñetti junni la yokk ci indi logement te jaayuñu ko newuñu da ngeen di def euh, indemnité ak yooyu IRD ak yooyu donc c'est c'est c'est clair. compensatoire la ñu jaay. loolu c'est ça dama koy corriger IRD yi bon suuf euh, eh, moom indemnité jaay. mais de logement dama koy dama la koy yokkal. donc pour Sénégal yi comprendre. voilà 20 000 la Abdoulaye Wade yokkoon ba pare yokk euh, heure yi ñuy hmm. ensuite Macky Sall président Macky bi mu ñëwee. 40 mhm. mille la yokk te yokkul heure yi ñu liggéey. aussi mu mu leer ci bopp yi am na lu ñuy jaawale salaire ak indemnité gis nga ñi nekk assemblée dafa am. Mhm. des indemnités liées à la fonction et des indemnités liées au corps dañ koy jaawale. Mhm. ñi nekk ci institution yi par exemple bu ñu nee Cheikh Diaby. député assemblée nationale la bu député ko jeexee salaire boobu dafay jeex salaire journaliste. lay lay amaat il faut aussi mu leer buñ ñu nee ni dafa nekk au conseil euh, Babacar dafa nekk au conseil c'est pour un mandat dafay jeex alors que saayiru enseignant bi dafay dem ba mu retraité. ensuite foofu d'accord ba yow. <laughs> parce que jeex bi mooy nit ki mais institution bi. toujours bu demee it. on continue mais xam nga bu ko waxee noonu dafa mel ni nit. den fay. non cent cent cent personnes yu nekk assemblée au cent cinquante yi. mais on continue à les payer bu fekkee du nit it ça continue le budget en tout cas du Sénégal dañuy déflaquer toujours loolu nga xam dañ koy fay assemblée wala institution yi nga wax. waaw damay damay leeral. pour Sénégal yi dégg dama ni dafa am indemnité liée à la fonction. enseignant bi. Mhm. xam nga enseignant bi nag assemblée. di touché un million et quelque. bu fekkee dañu faa jóge il retrouve le salaire d' enseignant te salaire enseignant li ci am solo mooy lan. Euh, dañ ko remercier sax syndicat njëkk yi muy UDEN. ak euh, je pense que sud-est dañu négocier ba nga xam ni li ëpp ci indemnité ci indice bi lañ ko liyee ba nga xam buy dem retraite li muy ñàkk ci ay indemnité comme yeneen corps yi du du bari loolu également mu mu leer ñi nekk ñi nekk vraiment ñi nekk ci institution encore que institution yi aussi bu ñu ko ñàkk fay na amul njariñ loolu aussi c'est un autre débat c'est un autre c'est aussi donc juste avant nga avancer est-ce que aussi yéen tamit des fois vous ne versez pas un peu dans la provocation parce que bu ngeen jógee ne xaalis amul maanaam euh, budget bi attanu ko alors qu'on vous voit aussi faire ay dépenses ba dañ ñuy wax ay dépenses de prestige ngeen di def TER bi def ngeen ci milliards BRT bi yéen ngi ci def 300 et quelques milliards enfin bref ay kii yu bëri aussi est-ce que ñoom aussi du leen dem ba eh. pousse mm-hmm. leen ko en fin de compte euh, maa ngi xam nga président Macky Sall bi salaire yi mm-hmm. DG bi ëppale salaire du weesu 5 millions loolu aussi nañu ko nangu les salaires sont plafonnés à 5 millions su amee beneen nag euh, ku ko def kooku dérive la. Mm, am na am na am na ñu. waaw maa ngi ñëw <laughs> en tout cas moom ñun ñëpp xam nañu dafa plafonné mm. salaire bi gën a rëy. ci yow xam nga ne amuñu. maa ngi ñëw ñëpp mais non dama bu fekkee dafa am ku ëppale 5 millions parce que man xawuma nag wax dëgg yàlla lu ma wax dama wóoru bu ko amee dérive la. mais li ma xam daal mooy président Macky Sall dafa plafonné le salaire yi <laughs> euh, salaire directeur général bi gën a mag donc euh, niveau bi du weesu 5 millions. loolu également mu leer bu am bu ñàkk nag ñu àcc xëy ñu jaay ci def lu leen neex mais loolu peut-être IGE dina ko lijjanti. alors moo aussi abri provisoire yi abri provisoire yi état bi génnewul xaalis ñu ci loi 3 bi commencé nañ ko financement bi donc ay entreprise ñooy ñëw ak ak ay banque ñëw. jël un lot tabax ko ay classes ay donc euh, ay blocs administratifs mais aussi clôture biir état bi jëlewul xaalis te incha allah bëgg nañu balaa président Macky euh, euh, donc jeexal mandat bi ñu def fin des abris provisoires commencé nañ ko alors jàngalekat yi aussi nekkul ne aussi jàngalekat yi xam nga dañuy wax jàngalekat dafa mel ni dañu nekk ay misérable nekkuñu ay misérable ah mais ñoom ñoom dinañ vraiment boo xoolee si c'est pas si c'est pas indiscret quand même léegi salaire de base ñoom à peu fu mu de ñaata ngeen ko fekk ak ñaata ngeen ko yóbbu waaw xam nga du ma bugguma dugg ci salaire aussi parce que man bugguma ko xam sama salaire man bugguma ko xam sama salaire ndax dëkk sutur la ñu yor mais xam naa daal euh, jàngalekat bi gën a suufe buy commencé buy commencé dina commencé correctement par rapport ñu nga xam ni daal dañu ko man ko daañu commencé fukki junni mais nga après nag ngay avancé ñu lay fay dégg yu kenn xamul loolu aussi jàngalekat nekkul ay misérable boo demee ci avancement bu yéex a yéex waaw di coow non non maa ngi ñëw non xam naa li ma wax jàngalekat yi nekkuñu situation yoo xam ni dañuy dee wax xiif wala ñu dee ak mar wala ñuy ñuy rafle loolu aussi nañ ko nañ ko wax am nañ droit nag wax dëgg yàlla kii boo xam ne secteur général Ndoye xam ne wax dëgg yàlla <laughs> mi ngi sant yàlla. macha allah macha allah <laughs> alors affaire euh, kii salaire xam nga wax sànq ni. am na benn enseignant bu jóg ni way man 1 million dañu maa coupé salaire aussi noonu da gis koo xam ni dafay amal amel bor banque bu demee banque dagg euh, xëy na sax am na ñoo xam dañu nekk ci suul bukki suul bukki. loolu ñoom impôt la ñu wax non maa ngi ñëw non damay ñëw damay ñëw. Mm-hmm. salaire aussi du affaire impôt rek. Mm-hmm. man bi may tabax suñu suñu kër damaa dem lebi banque. ma koy dagg ma koy ma koy yëg muy métti trop buñ la buñ la buñ la kiyee buñ la joxee fayee salaire dañu war a xool lan mooy impôt bi euh, parfois aussi. nga dem hôpital euh, bon comment ça s'appelle Ablaye li li kayit gi joxe encore kayit bu ñu lay jox pour nga dem hôpital euh, j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai boo ko IPM bi ah IPM wala non c'est pas IPM chez nous il a imputation imputation budgétaire ah dañuy dagg c'est-à-dire am na yu bëri yoo xam dañu koy dagg plus impôt bi ak leen bu ko defee nag nga ni non non maa imposé loolu aussi dañ ko def bu man du man du mën wax lu dëgg mais nag pour ñu confirmer ko dañuy xool salaire bi ndax moom amul pré banque parce que au moins le tiers est saisissable kooku moom mu leer ensuite euh, bor bi muy wax. xam nga jàngalekat différence cas yi Ablaye mu joxe dafa bëri quand même. ma wax lu bees à la seule différence joxe dafa bëri. te sont des cas précis yi ngeen dégg. Ah. am na jàngalekat yoo xam seen responsabilité la. parce que am na jàngalekat yoo xam ne dañoo surtout dañoo bëgg a def formation diplômante mënuñu ko def xamul tax amuñu CEAP. am jàngalekat lu ñu ko def mooy problème bi parce que on a recruté. à un certain moment des enseignants yoo xamante ne bi ba léegi diplôme académique la ñu am wala wala mais amuñu diplôme professionnel et sans diplôme professionnel mënoo avancer koo gis nga toog naa 10 ans 20 ans am na ñoo xam ni seen responsabilité la te li may wax dama ko xam je suis le directeur de la formation de la communication tey am na un un un bu ñëw waxtaan waxtaan teeg man la ma ñu il ñu jàppale man ko yow lii bu ñu ko dugalee affaire bi feeñ. gis nga kii yow la fi njëkk a teg man la wax mu samay wax donc nañ xool aussi avancement affaire avancement yi am na euh, cette responsabilité des enseignants. d'accord pour terminer. Oui, parce, pour terminer bon, parce que bon comme je suis presque un contre contre contre trois. waaw ku nekk sa bopp nga. non sa bopp nga. <laughs> alors alors. j'ai ko si da ngeen bokk alors les euh, alors. Euh, leneen affaire bor bu enseignant yi euh, bu gouvernement amal am na entreprise yoo xam ne gouvernement bi leen amal 100 milliards mm-hmm. am na entreprise yoo xam ne gouvernement bi dañu amal 100 milliards boo demee santé amee nañu leen boo demee feneen amee nañu leen te it gouvernement aussi noonu lay doxee te gis nga même yow soo bëggee avancement comme wax naa ko sànq enseignant bi ni way avancé bu nangam nangam mais bu ñu lay inspecté wu sax mënoo mënoo kii parfois ñoo inspecté mu échoué man chaque jour damay lijjanti waaye monsieur kii monsieur euh, directeur war ma inspecteur ba ma woo inspecteur ba ñu dem inspecteur enseignant bi mu échoué bu échoué nu muy nu muy nu muy kii donc dafa am plusieurs causes yoo xam ni souvent dañuy wax dañ koy gouvernement parce que aussi am na responsabilité enseignant yu ci yu ci nekk mu terminer ci vraiment li ma doon wax sànq ñun suñuy partenaire lañu te naa sànq nii boo demee ci àll bi da nga gis ay jàngalekat yoo xam ni dañuy dugg boo demee ci île à Mosul dafa day compliqué ñu dugg ci ay gaal euh, ay abri provisoire et cetera suñuy partenaire rajo xam nañu aussi ni jàngale kenn mënu koo kenn mënu koo fay waaye bu ñu même France ah, jàngalekat yaa ngi grève parce que koo ci koo ci dugal classe am 35 élèves muy def si effectif pléthorique te fii dina jox ang jàngalekat boo xam ni presque cent élèves directeur général bi ay lañu li ma oui oui loolu kenn kenn ah. discuté ko maintenant maintenant ah, non maintenant li ma bëggoon terminer ah. mooy xam nga amul benn parent d'élève boo xam ne sa sa doom dina fi juge parce que ñoom suñu grève effectivement ñun dañu ko yëg contrairement a la grève euh, du G20 ñi yor parce que waxtam wax waxtaan tam wax dëgg ca la mhm. vraiment ñii ñoo yor majorité des enseignants ñoom ñoo mën a tëj ay classe mais ni sama xarit lañu waaye mënuñoo tëj classe. nee nañu ah, ma leen di wax. bàyyil ma ñëwaat yow maa ngi ñëw yow ci conclusion yi. parce ah, que c'est important xam nga temps bi moo xat. foog ma jox Cheikh te mu wax ak Babacar ma jox leen pour le dernier tour de table. mais Cheikh man je suis un peu inquiet quand surtout ci avenir xale yi parce que li ma fi dégg yëpp ay revendications la pour le mu xaalis tout ça mais peut-être mën na bañ a neex débatteur yi comme mën na leen aussi neex. mais j'ai l'impression qu'on se soucie également un peu Euh, gis nañ ne xëccoo bi day métti ba euh, ça se traduit la plupart du temps par nañ jéem a sauver année scolaire bi et pendant ce temps également l'école traîne pendant ce temps xale yi seen jàng mu ngi yàqu tey man vraiment bu ma dégloo débat bi man dama xaw a tiit loolu ci avenir u xale yi. écoute tiit la boo xam ne dañ ko partagé ah mais man damay tiit damay tiit ci même posture parce que euh, mon ami Diagne quand di dit compte 3. wala dañu contre man. xam nga non c'est pour force non non. waaw j'espère que c'est ça. <laughs> quand aussi dans une approche de justification. comme on sait le faire xam nga Sénégal moom tey bu joxee rendez-vous raté sax daan la embouteillage bi ma téye woon ak leneen dañu ay ci justification. loolu bu ñu ko def du ñu trouver solution de. Hmm. bu fekkee dañu bëgg trouver solution. il faut que qu'on soit plus froid. lan moo xew mooy ñi dañuy wax non respect des accords. kat boo signé accords yi kan moo am possibilité pour accords yooyu ñu respecté ci date yi ñu waxoon mooy gouvernement donc góorgóorlu leen ngeen respecté accords yi benn ça ça c'est objectif non respect des accords fu ñu ko déggee gouvernement ngay joxoñ c'est objectif bis bu ñu demoon ba dégg beneen façon revendication ñii di ñu sonnal chaque jour ñu indi lu bees chaque jour ñu indi lu bees nit ñi daan leen wax eh moomu la nit parce que yéen kese nekku leen ci seen mais actuellement lan la ñu wax non respect des accords am na loo signantoon ñun seede lañ joxe ay échéancier egg nañ ci même boo defee ay jéego mais objectif yi nga fixé woon par rapport mm. respecté woo ko dañ naan la respecté ko xam nga tax ñu war ko respecté mm. parce que ça nous li nga wax mooy ñu génn nag ci ay débat d'ordre matériel dafa jot ñu arrêté ñu naan ay non non non gars yi dañoo avancement dañoo grève parce que fayu ñu rek indemnité loolu dañ ko war weesu tey dañu war a mën a invité ñuy waxtaan sur des questions de qualité par rapport ak performance xale yi sax wax nañ ko France la ñu exemple def nañ fi baccalauréat ñu am 76 pour cent de réussite. ça crée une crise. ñu génn ci biti dem. ça grève ñoom ils sont ñun ci 30 il faut ñu am jotu li jënt loolu. tey jii yéen a ngi wax su may déglu muy Cheikh muy Diagne. j'ai l'impression dañuy dañuy joxe impression que ne enseignants yi moo tax bu ñu defee effort day métti wala enveloppe bi budget bi dafa bëri alors que ñun financement bi ñuy def éducation dafa tuuti ah. Hmm. il faut 24 pour cent c'est peu. dafa tuuti. ñaata enveloppe bi milliards. Hmm. jàmbaar lañ de. romb nañ sax standard internationaux yi qui demande 20 pour cent mais dafa tuuti tout ça pourquoi sax mu tuuti. déedéet waxal dafa tuuti parce que benn bëri na ay xale yoo xam ni en de 2020 ba léegi ñoom nekkuñu si benn l'école te dañ war a enrôler boo leen enrôler war nga yokk financement bi ñu ci def dafa tuuti parce que ñaar bëri na ay classes yoo xam ne tey dañoo delluwaat ci ay double flux ak ay multigrade te loolu xam nañ ñu du qualité donc bu fekkee ne demoon nga ba classe yi répondre de qualité bu boobaa da yokk da nga financement tuuti parce que ñett jàng boo jëlee benn classe nga bëgg a am jàngalkat boo xam ne day suivre xale bu ne y compris xale bi nga xam ni dafay yéex a comprendre téye loxo ku ne il faut nga grève du nombre yi sànq moo ngi wax un un enseignant pour 35 élèves war nañu egg au moins à 45 élèves ji on est à un enseignant sur élèves dafa tuuti donc bu nekkee delluwaat nga ci norme yi

réew yëpp nga ne loolu loo loo ñàkk a ñàkk góorgóorlu war nga egg 20 pour cent Sénégal góorgóorlu dafa egg 24 pour cent donc jàmbaar la mais Sénégal si boppam dafa war a xeeb li ci def parce que bëri nay xaleem yoo xam ne dugguñu ci l'école parce que jàngalekat yi matuñu sànq la nañ wax bu nekkee jàngalekat bu dee jox nañ ko 40 mille nee na day egg 5 5 milliards te dafa tuuti puisque war nga yokk nañu nekk ci ay normes de qualité la de mooy un enseignant pour quarante cinq donc pour ñun hmm. ces questions là war nañu am jotu di ko débattre et pour débattre ko bu nekkee nag financement hmm. danga nga jàpp di yaa ngi koy yemale kese ci ay impôt ak taxe hmm. boobaa évidemment ko doo ko attan mais bu fekkee mën nga euh, prospecter yeneen source de financement innovant boobaa da nga ci mën a jëf yaa ngi wax sànq le rapport avec dialogue national le rapport avec les ressources pétrolières et minières ñun ñëpp bu ñu nangoo ne moo war a nañ ne li muy bëri bëri buñ ci génnee nañ jël 5 pour cent affecté ko éducation ñun ñëpp ñu seddoo damay joxe exemple Inde ma dem jënd portable ñu jox ma facture bind ci 5 pour cent pour éducation man participé naa ci éducation Inde te xooma wax uh-huh. donc pourquoi ñun mu ñu am ay taxe spéciale bu ñu jubóoni mbirum éducation pour que xale yi mën a réussir war mun jël ay taxe spéciale ji euh, ko jagleel ko euh, éducation donc il faudrait ñu innover en termes de financement sànq moo ngi joxe l'exemple de CARE est-ce que aujourd'hui pare nañ pour ay Sadio Mané yu bëri bi tabax école am est-ce que pare nañ pour secteur euh, partenariat public privé ñëw mën a investir. est-ce que pare nañ pour nit ñi li ñu def si Masaalikul naan ba murit yi ñoom cotiser seen bopp ba tabaxal euh, jumaa ji nga xam ne ñëpp la yéem. Mhm. yi parce que dañuy wóolu seen communauté. donc ban instant la ñu def ba créer waat cette confiance entre société bi ak. Mhm. éducation mooy waral ñu am yeneen source de financement. yi mën a tax ba état bi nga xam ne dafa mel ni essoufflé parce que li mu def mooy maximum mu am leneen loo xam ne dana mën a dana ko mën a. mais à côté est-ce que amul benn pour ñun la question du financement de l'éducation dafa c'est une question nodale boo xam ne warul yem kese ci impôt ak taxe tant que moo ngi yem ci impôt ak taxe boobaa question yi mel dana fi dellu loolu mooy benn ñaareel bi nga xam ni gëm naa ko mooy les questions d'ordre matériel war nañ ko mën a faase ci coowu jàngalekat waratuñu am benn plateforme bu daan ñu ay non respect des Sénégal waratu ko nangu. y il pas un problème de management parce que ministre yu fi jot a jaar bëri na. entre guillemets su fekkee mën naa jël depuis 2012 ak léegi. volonté politique par exemple 3 ou 4 ministres. volonté politique planification prévention mais waratu joo nangu ñu accord revendication fi amoon daaw jiwaan na fi nekk yu bees dama Japon ñoom dañuy jël def ay défi ay deux défis par an. Hmm. ñu ne ren bii projet dootu fi amati. Hmm. pourquoi ñun mënuñ jël rek ne bon 2020 lenteur administrative moom kenn dootu ko waxati. <laughs> ku ñuy invité chadia bi invité ku la neex mais dootu fi waxati àllante administrative ñu def focus sur ça par exemple pourquoi mënuñu jël ne 2021 notre focus c'est abri provisoire provision xam ne am focus mais mënuñu ñëw comme on le fait au Sénégal bi ñuy def suñu assise nationale on avait 342 recommandations loolu foog ko mën a respecté nga def focus jël ñaar ou ñett poñ ñetti défi yu rëy ne yii dama koy régler définitivement mu romb dootuñu ko waxati bu ko defee man yeneen enjeu lay jàkkaarloon mais chaque année c'est non respect des accords chaque année c'est frustration des enseignants pour lenteur administrative war na jàll warul jàll war na jot ay kayitam war ñu ko jot chaque année c'est des de de parce que tu sens que voilà en de traitement yéen dañ leen comme amul ndey alors comme je l'ai dit boutique ba boo fa demee di jënd saako ceeb du la wax di saako ceeb bi est-ce que enseignant nga ñu jaayaloo ko 16000 boo <laughs> ñun li ñuy ñaan mooy di ko ñaan président de la république. Mhm. ak ñi nga xam ne ñooy xelal président de la république. parce que président yàgg nañu ko wax muy depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade yenn saa ñu ne ñi leen di xelal yenn saa ñu juumloo leen duñ leen jox la bonne information ñoo leen ñaan jox leen bonne information la bonne information mooy président de la république. ñun puisqu'on est ampliataire des préavis. Mhm. li ñu ci gis mooy non respect ngi ñëw pour le te bu ñu sañoon. waaw c'est non mhm. te pour mu xewi mooy chaque fois bu nekkee waxtaan am na ak ñi il est important que ñu am ay échéanciers yoo xam ne mën nañ ko respecter parce que am nañ expertise Sénégal am na expertise bi war a tax ba engagement bu jël war na ko mën respecter. bien sûr loolu lañ koy ñaan bi ñu ko ñaanee na ko monitoring yi war na reprendre avec puisque amatuñu premier ministre. mu def ko dañoo tàccu kontaan mu indi Cheikh Kanté ku mu indi baax na mais ni kenn koo xam ne mooy animé le monitoring ñu reprendre ko donc ça pour nous c'est un ñoom négocier nañu ba juboo seen 100000 plus 40000 moo ngi koy respecté jusque la fin du mois na ko na ko mottali yeneen poñ yi nga xam ne jël na ci engagement na wax nañu wax gouvernement bi ñu góorgóorlu des ci pas seulement ay jéego mais ñu respectoo respecté ko selon conformément ak euh, li protocole bi génn bu ñu ça nous permettra nag maintenant ñu mën a engagé yootu yeneen waxtaan parce que Sénégal comme tu le dis mérite ñu engagé yeneen xale yi nekk ci ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy perte parce que ñoom ñooy ñi gën a nekk nekk ci ay jafe yenn question liée ak performance ak qualité daf ñu nar a échappé à cause de ces questions. parce fu mu toll nii fait font parce que ñu bëri ko mais Babacar. Euh, dama bëggoon juste rek xam naa dinaa jox ci kanam tamit euh, Diagne parce que enseignants yu bëri ñu ngi envoyé ay SMS ne ñoom maanaam li nga wax ne ànduñu see yow am na ñu naan fii dañ dagg ay. nekkul banque 57 euh, francs ñu ne ñoom 2 millions lañ leen joxoon comme ay impôts enfin bref naa la lire lépp. non attendez attendez ma jox Babacar dama bëggoon un peu par rapport au budget. du ñu fi jógee tant que peut-être solution mën na am. ñoom nañu wax euh, grève bi. bien sûr la ñu mën a dem. bien ak monsieur Diagne parce qu'on a connu dans les derniers plus de. combien solo comment aussi loolu la 14 plans d'action monsieur wax ñu est-ce que ñoom ils sont prêts quand même à aller jusqu'où euh, par rapport donc aux revendications des men je crois que li ma wax léegi si budget bi dafa am solo li nga état du Sénégal 4000 milliards moom budget mënoo jël engagement def lépp te j'ai l'impression que l'état du Sénégal li muy def si budget dafa bëri maanaam dépense publique yi dafa bëri am na yoo xam ni peut-être xaar xaar xaaruñu ko si comme li nga wax léegi partenariat public privé dafa am solo am na yu bëri yoo xam ne nii boo amee partenariat public privé dina la permettre nga réaliser lu bëri te sa gafa du ci génn man j'ai l'impression que le président Macky Sall pour yu bëri ci budget la koy génne te loolu quand même c'est un problème moo tax ngay dégg toujours ñu naan la enseignants yi bu ñu yokkalee lii fan la jëm fan la jëm te en plus wax nañu ko fii budget bi je crois yokk ko la ñu ñaan parce que mënoo xaar rek toujours yam quand même si si 4000 milliards bu pétrole bi ñëwee milliards ak yooyu dañu xalaat ni moment bi ñu koy exploité dina si yokku. Mm-hmm. mooy xalaat am na njariñ que au même titre que impôt yeeg yooyu lay jël. donc euh, bu ñu demee sax ñu naan na fa yegg. parce que toujours ñu wax ko am na des niches yoo xam ni impôts yi bu ñu ko laalee te du yàq dara nag ci assiette fiscale bi. Mhm. mën nañ ko laal pour yokk gouvernement ambition boobu lay am boo demee ba taxaw say say nit say njoj say say fonctionnaire ak ñeneen ñeneen di revendiquer ba nga xam ne yow sësu nga au mur il faut que nga trouver ay solution mënoo taxaw toujours di jongle par rapport à la revendication mooy nga xool yow état bi ah noo mën a def yow gis nga ni kat bëgg-bëggu askan bi toll na fi mu nekk nii ne serait-ce que wax na ko.

alal bi ñuy am day yeex te xam nga budget bi wàññeekuwaat na ah 6 yi ñu ngi woon 6 6 euh, virgule pour cent léegi actuellement si 6 pour cent dañu table mhm. donc ça veut dire que engagement yu bëri wax nañ ko mais dañu ko mën a def tant que xooluñu yeneen solution partenariat public privé wala xool niche fiscale yi nu ñu ko mën a agrandir assiette bi ba nga xam ne budget bi dina yokk loolu am na solo mhm. beneen mbir mi mooy lenteur administrative bi je crois Cheikh ba daal j'ai l'impression que ñoom ñoo ko tey. mais Babacar la fast track lañ nekk. non mais ñoo ko tey mais ñoo ko tey. c'est ah, que lenteur mais mais nekk quand même mais loolu je crois que dañu ko war a évacuer le président Macky Sall mënul def de ce mandat là ah bilan daal dina engagement fast track affaire yi gaaw woote ay séminaire lu nekk mu def ko mais en fait ñuy tardé si ay ay détails yoo xam ni dañ naan lenteur administrative ci loo xam ne mën nañu ko régler. parce que ay papier wax na ko léegi ngay gàddu ay dossier di yóbbu alors que ADIE ñu mu ko waxee ñi nga xam ne ñoo yore informatisation de l'État mais war nañu mën a lijjanti loolu man je crois que peut-être bu gaawee du ñu am budget bi pour mën a respecter engagement yooyu donc dañ koy yeexal. à compte goutte ça c'est fait à dessein bu ñu koy def à compte goutte dina tombeek li nga xam ne loolu ñu a fay ñu ñu fay ko mais quand fi ñu toll mën nañu wax ay ay ay kii l'antenne administrative si ñoo xam ni ay intellectuels la ñoo ko seq ay enseignants ay truc benn ministère maintenant ministre bi nag euh, mënuñu wax ni rek ministre éducation nationale la parce que revendication yi c'est des revendications transversales. c'est ça dëgg-dëgg ça concerne beaucoup d'autres ministères. Mm. moom moo fi toog mais keneen mënoon mënoon na toog. parce que son ministère mën na jël ay engagements yoo xam ni bu fekkee gafe bi le ministère de l'économie et des finances wala de l'économie euh, taxawul pour régler ko c'est c'est c'est un problème. bien sûr donc je crois pour yenn kii vraiment. mais mais Babacar xale yi tamit bëggoon naa nga wax ci tamit ci situation xale yi parce que. tey boo xoolee on dit que ce pour cent yi nga wax. Mhm. loolu c'est important je crois que finalement nu ñuy dem. mooy mhm. mooy yi mujj dañuy dem ba fond finalement élèves yi ñu leen di agité ñuy génn sax def ay grève daal dañuy demande jàngi. foofu lay mujjee toujours ah rappel depuis quelques années après dañuy def seeni mouvement de grève daal dañoo bëgg a jàng finalement ak eh, faute bi kooku nga koy rejeté enseignants yi parce que day mel ni ñoom ñoo bañ a dem ci classe yi jàngi parce que état bi toujours nag loolu lay xaar. Mhm. daal di xaar benn benn situation boo xam ni pourri en tout cas de de pourrissement xam ni à un moment donné day kii ñoom ñu obligé au dernier moment dem jàngi avec avec résultat yi nga xam. parce que moment bi ñuy commencé grève bi il y a quand même programme boo xam ne duñu ko respecté ñoom enseignants yi ba nga xamee ni dañoo jël mesure. wala bokk euh, seen orientation ci secteur privé yi. dem di jàngale ci privé bi plus que li jàngale mais nit ñi dañ leen ko wax dénoncé ko. parce que au moment où par exemple ñu ngi grève mais ñu ngi dem jàngale ji privé moment boobu dañ leen ko wax mais je crois que aussi il faut pas que toujours l'État table sur ça. il faut que en moment donné nag ñu régler seen i problème mais est-ce que grève bi toujours toujours c'est la bonne solution c'est la meilleure solution. est-ce que

man daal li ma gis mooy que ni je crois que Moustapha Diagne am na ay mesures yoo xam ne état bi décidé na ko pour mettre fin. Abdoulaye parce que dañuy jeexal foog nga ñu solution yow yaakaar ne mooy doon solution. dafa am ay pression Babacar parce que mu ngi jeexal. en 62 depuis 62 nous sommes dañu jóge régime bicéphale le bicéphalisme un régime à deux têtes. Mm-hmm. dem ci un régime présidentiel fort. Mm-hmm. man yàlla daf ma baaxee. 2007 j'ai rencontré au moins deux trois fois le 2011 président. Ablaye Wade président Macky Sall bii. moo doon premier ministre. y a la continuité de l'état mm. Mm. président Macky lépp lu am ci njàng mi xam na ko. volonté politique bi mu wax moom moo fi des ñaareel bi mooy il faut loolu ma leeral parce que début da nga ne am na syndicat yi ànda Ablaye wat ñun du ñu ay politiciens je veux que ça soit clair. Mm. man suma syndicat le CUSEMS e secrétaire général bi la personne morale bés boo bokkee ci parti dañu lay génne. c'est dans les textes et les statuts du syndicat tant yaa ngi jiite syndicat parce que man sama biir syndicat. Mhm. waa PDS ñu ngi ci biir. waa APR ñu ngi ci biir. waa LD ñu ngi ci biir. ay mouvement ñu ngi ci biir. mais lu ñu boole le dénominateur commun c'est le système éducatif sénégalais leneen boolewul. loolu dañu bëgg ma ne ñun musuñu ànd ak lay Wade jamono Ablaye Wade dañu doon ne. opposition moo ñu instrumentalise tey jii bu nit ñu waxee opposition moo ñu instrumentalise dafay wax ñun on est dans la dans la bonne voie parce que ñun kenn mënuñu instrumentalise <coughs> jàngalekat yi ma gis Blaise Diagne Limamou Laye ñooñu c'est des responsables ñaareel bi may ma may ma jaabi xam nga temps bi moom waaw je vais aller vite jaabi may ma moo tax dafa ne jàngalekat yi retard avancement du si ñoom je voudrais rappeler au directeur kañ la ñu commencé politique recrutement volontaire vacataire. C'est dans les années 80 avec les politiques d'ajustement structurel. À l'époque, titularisation par quota la dañu naan 2007 200 enseignants la ñuy jël même bu dee am na vingt 000 yu toog loolu moo indi sédimentation dossier yi pourquoi en négociation ñu ne nañu def guichet unique ak opération coup de poing parce que y avait des milliers de dossiers en souffrance mais jàngalekat yi parce que l'exception ne peut pas confirmer la règle loolu dama bëgg mu leer c'est léegi temps temps jeex na Ablaye Ndoye. Diagne ma ma terminer. non mais temps jeex na xam nga aussi ma j'étais poli ak yow. j'étais poli ma jox la ma ne la répondre sama question mais nangu woo te temps jeex na aussi. waaw ñu ngi lay ay questions mais c'est parce temps jeex xam nga man dama la dama la wax. une ah, gis nga bulletin de salaire bu ñu la joxee dañ la naan rappel bi lépp daf ci ne bulletin bi moom mooy wax lu ñu la jox ak lu ñu la dagg du loo xam ne jàngalekat moo koy inventé loolu rek laa bëggoon dool jërëjëf le mot de la fin. waa jërëjëf euh, Cheikh bon je pense que débat bi au moins am na xam nga boo déggee euh, waxu secrétaire général ndooy lu ci bëri doon wax defuñu dara danaan def nañu mais kon ma desuwaat ci sama 33 points yi ci 32 points amul benn boo ci jël ou bien am na sax point yoo xam ni dañ ko dañ ko résoudre par exemple boo jëlee imposition de 2006 ñu woon ci plateforme bi gouvernement bi dafa jël 700 millions fay leen nekkul ci plateforme yaa ngi dégg am na ay points yoo xam ne ça a disparu de la plateforme man d'accord naa ni gouvernement bi deful lépp mais gouvernement bi li mu mën en fonction de ses moyens les moyens d'un pays sous-développé parce que encore une fois on n'est pas en France on n'est pas aux États-Unis on est au Sénégal yaa ngi wax affaire budget xam nga budget dafa am benn principe bu am solo bu ñu koy sukkandiku mooy le principe de sincérité parce que même boo nee budget 16000 milliards doo ko mën a recouvrir ay ay ay ay ay recettes fi mu toll nii même chaque année wala syndicats yi si jàppale ñu ci parce que euh, secteur bi dafay victime de ce qu'on appelle les les les ponctions da ngay dem rek ñu commencé ponctionner parce que y a pas eu suffisamment de recettes pour que le budget voté corresponde au budget exécuté yooyu aussi il faut ñu xam ko gouvernement bi. bañul defal enseignants yi mi ngi defal enseignants yi. c'est quoi la solution pour éviter pour pour bañ affaire bi am. waxtaan mu gis nga ñun. waxtaan depuis ñaata at. te non xam nga waxtaan non xam nga waxtaan. xanaa du ngeen dem ci ak ak waxtaan waxtaan du eh. toog di waxtaan déedéet li ma la wax sànq dama ne la chaque jour que jëfee ñun nous recevons au niveau de chaque département nous recevons les les les syndicalistes nous les enseignants dañuy xam ne enseignants day ñëw indi la dossier am nga nga nga réglé ko ñun ñii ñëpp dañuy foote fonction publique. pour ay ay ay at dañuy wote euh, kii finance pour ay mise en solde ay rappel donc c'est dire que affaire bi c'est la poursuite des dossiers te loolu gouvernement bi mu koy def nekkul la dajaloo di affaire bi du dajaloo di waxtaan moo koy régler déedéet chaque chaque service de l'État ak lu mu ndaw ndaw muy bureau muy muy muy service muy division muy direction ñëpp ñu ngi ci soxla jàngalekat yi parce que jàngalekat yi yeexaay parce que xam nga yeexaay bi koy wax la man la jàngalekat boo xam ni dafa nekk guddomp euh, teg teg may bala ngaa déposé sa dossier. waaw ma wax la ko. ma ñëw bi ñu lancé plan d' action. am quatre convocations éducation convoqué ñu. formation professionnelle convoqué. waaw s'il vous mais éducation recevoir Cheikh woote. te trois mois ngi nii kenn woo. mais si si mais eh, eh, secrétaire général man ak yow kay Mamadou Talla kay recevoir na ses G7 yëpp. non loolu ah d' accord donc pour terminer mais trois mois éducation ci. woo te jàppoon na le 23 pour woo leen ngeen déclenché. Euh, mouvement li ma bëgg wax mooy. mais c'est c'est pour les le pied loolu xam naa ngeen bàyyi ba ñu jàpp seen plan d'action ngeen ne ñoo waxtaan. loolu aussi pourquoi defu leen ko bu xale yi ñoo ne suñu diggante ñu ñi ñëpp nous venons de familles euh, démunies parfois pauvres euh, donc vraiment exposé ñun ñëpp laa wax ñu si ëpp en tout cas man ci laa bokk benn chance laa amoon pour génn ci mooy école publique man mi wax sama doom mu ngi école japonaise école publique laa ko dugal parce que je me refuse sax di ko yóbbu ci école privée bi mm. kon li may wax du ko gëm donc ñu xam waa G7 yi man vraiment je les sais suffisamment responsable parce que yàgg nañu te à chaque fois wax dëgg yàlla nag su ñu waree bàyyi wax dëgg yàlla bàyyi nañu. d'accord jërëjëf ñu continuer waxtaan. waxtaan xam ne diggante bi. bien sûr xale yee ci nekk. te it résultat yi nga xamante ne bii moo am ci bac bi am ci BFM bi. am ci feneen. ñu xool vraiment ñu ñu qualité de l'enseignement bi bi dina dina ci am. alors Cheikh le de la fin parce que jeexal nañu taal. poñ rek la bu njëkk bi mooy il faut que gouvernement bi wane ni dégg na dégg na alerte bi parce que alerte la rek quoi du leneen ba nga xam ne du dem ci deuxième d' action d' action yem. boobu bi moom mooy grève ak euh, débrayage ak yooyu su ma sa yoon si benn bi lay yem. Ah, parce que bii moom yëngal nañu ah ils sont ils sont allés un peu fort ñii bu ñu seen marche suba. Hmm. coordonnement bi woo leen balaa weekend bi vendredi samedi dimanche avec des actes des concrets surtout yi nga xam ni ñoom danañ ko mën a attester ni nekk na masse critique boo xam ne bu ñu ko joxee jàngalekat yi ñu ne nañ dellu hmm. ñu wàññi nag di Sénégal mën na def exception boobu bu ñu dem situation pour espoir hmm. di poussati nit ñi ba mois de mai pour takkale li ñent ñu ci génnee na gouvernement wan nit ñi dégg nañ leen alerte la woon doo leen def deuxième plan d'action parce que dinaa leen woo ci biir weekend bi su ma ku nekk def ay actes significatifs hmm. xam ne Sénégal bi dana ci teg seen bu ko defee même bu nekk am na échéance ñu dépassé woon ñu redéfinir leen très rapidement et ça ça nous permettra au moins pour une fois ñu ne kat alerte la ñu def ñu dégg leen donc pour man loolu mooy euh, mooy suma premier appel bi nga xam ne mooy lancé deuxième appel may lancé mooy il faut aussi ñu nekk ci beneen dispositif d'écoute des communautés xam nga nit ñi ñëpp ay kilifa lañ mhm. bu ñu di wax da ngay bëgg ñu dégg la bu fekkee nag dégg la mooy dem ci mbedd mi def marche def truc loolu baaxul il faut que gouvernement wane ni ñu dul def marche ñu nekkul ci mbedd bi soxla woo sax def plan d'action pour ñu dégg la su ma la yónnee alerte yónn la préavis su ma amee loo xam ne dama la ko ñu waxtaan ci bu ñu ko defee man gëm naa ne ñun ñoo gën a intelligent problème ñu jàkkaarloo Sénégal ñoo gën a intelligent problème yi Sénégal dëkk bu riche la il faut ñu wax ko suñu askan bi xale yi ñuy déglu jàppale seen réew réew mu riche la mm-hmm. ban ko ban pays a riche France xam ne amuñu kenn amu ko waaye naaj bi malheureusement lakk rek la lay def am nga ndox boo xam ni bu la neexee ne yaa ko fi yëpp. am nga pétrole am nga gaz am nga am loo xam ne xamagoo ko parce que jeune pays lañ donc nous sommes un pays très benn ñuy ñuy planifier mieux planifier di évaluer am na solo beneen bi mooy ñu ñu ñu ñuy nawante c'est-à-dire mu bañ ay préjugés ak ay biais. bañ a nekk si si approche défensive. Mhm. bu ñu ko dee def di sot problème yi man gëm naa ni. amul problème boo xam ne të na Sénégalais yi donc daal. Mhm. li may ñaan daal mooy sa waxtaan bi tax ba. du am deuxième plan d'action. du am deuxième plan d'action parce que le gouvernement aura appelé. bu ko defee il y aura des pas significatifs qui nous permettront de constater évidemment que cours yi mën reprendre ba duñ nekk tey situation de pourrissement parce que vraiment loolu daf ñu stressé yàq liggéey ñëpp lay def yàq liggéey ñëpp lay def et le plus grand perdant c' est et particulièrement l' de l' école Babacar parce que temps bi jeex na tàkku Babacar allez allez allez Babacar. monsieur mooy appel bi à l' état. mu xam ni aujourd'hui revendication a nañu xool des solution à long terme maanaam li ñu wax c'est c'est c'est très clair xool si xalaat mooy ñoom également je crois que gouvernement bu taxee ak ñoom na jël des des trucs euh, des des par exemple dans long terme ou en tout cas moyen terme nga xam ne nañu gën a mën a fagaru parce que budget buy sëfee entre 4000 milliards ba 5000 milliards mënul régler problème mu Sénégalais yi. sinon ñii bu ñu régler seen problème santé gis nga leen ña ngay yëngatu. Mm-hmm. ñeneen na l' état du Sénégal gën a par rapport à la gestion. partout il y a des urgences partout Ababacar il y a des urgences partout. c'est pour les tous les agents de la. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi non c'est juste que temps bi moo jëf Ablaye ma la sant on a bloqué à l'école normale parce que n'a pas encore payé. jërëjëf Ablaye kontaan nañu lool ci ci sa teewaay ci débat bi yow yaay secrétaire général du QCM G7 euh, de la formation de la communication nekk fële ministère euh, de

de Y'en a marre di Alioune Sané moom mooy sama gan donc dina indi ay leeral ci loolu wax ci seen euh, euh, donc manifestation yi nga xam ne ñu ngi koy waaja jërë ngeen def mbokku téléspectateurs yi jàmm ak jàmm